amma baad fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ngi nuyu mbokk yi di sant sunu borom tabaraka wa taala mi ñu boole defal ñu ndimmal ba ñu bokk daje ci béréb bii di jàkka di waxtaane lu jëm ci sunu mbirum diine di sant it mbokk yi ci seen liggéey bi nga xam ne ñu ngi góor góorlu ba at mu nekk ñi di ko amal ci anam goo xam ne dafa mel ne day gën di jëm kanam ci wàllu nose ak organisation mu doon loo xam ne lu am solo la ci wàllu liggéey tomb biñ war a waxtaan ak ñoom mooy bi mbokk yi jiitu rekk rek junj al amru bil maaruf wa nahyu an il munkar wa qawaacidu mu doon ab tomb boo xam ne e, jéem nañ koo gëstu ci ñeenti bunt ba ci jëkk mooy xaddul amri bil maaruf wala xaddul maaruf wal munkar xamle wala définir li nga xam ne mooy almaaruf mooy lan ak almunkar mooy lan parce que ñaari baat la yoo xam ne benn bu ci ne dafa jaadu ñu xam lu muy firi ñaareelu tomb ba moo di ahamiyatu hada almawdu solo si nga xam ne tomb bi ñuy waxtaane tey am na ko ñetteel ba nag moo di qawaid yi règle yi nga xam ne ñooy réglementé tomb bi nga xam ne ci la ñu nekk ñenteel ba ay masala rek la yu ñuy mottalee waxtaan wi kon dañuy daal di dugg rek bu ko defee kon dañuy daal di dugg rek ci tomb bu njëkk bi ibnu jarir al tabari rahimahullahu taala dafay wax ne wa aslu lmaarufi kullu ma kaana maarufan filuhu jamilan mustaxsanan gayra mustaqbaxin fi ahli liman fi ahli limaani billah وإنما سميت طاعة الله معروفا لأنه مما يعرفه أهل الإيمان wala yastankiruuna ibnu jarir dafa wax ne ci bi muy définir al maaruf mu ne lay cosaan ci loolu mooy lépp loo xam ne lu baax la lépp loo xam ne lu rafet la loo xam ne ñi gëm yàlla te am diine rafetlu nañ ko jàppe nañ ko it lu baax mu ne loolu moo tax topp yàlla ñu tudde ko maaruf mu doon lu baax ndax topp yàlla képp ku baax xam nga ne lu rafet la lu baax la raaxib mu ne almaarufu maa urifa xusnuhu charan wa aqlan nee na lu baax mooy li charia ne lii baax na ba noppi am xel itam ne baax na la chaque ne sharia bu ne baax na faaw xel ne baax na benn kaw kaw ca kaw kaw nga xam ne dañoo xóot lool ci wàllu xel ak ci waxiin dañ ko laaj ci ban màndarga nga xam ne muhammad nii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy yonent bi yàlla mu ne maa amara bi cheyin qattu fa qaala alaqlu laytahu naha an wala naha an cheyin qattu fa qaala alaqlu laytahu amara bi nee na musta digle dara xel mu mucc ne ah lii de ak a neexoon mu tere ko wala mu tere dara xel mu mucc ne lii de ak a neexoon mu digle ko kon sharia bu ne nii la xel mi mucc nga xam ne yàquwul faaw mu ne nii la waaye su sharia ne nii la rek am xel ne nii la xamal ne xel tawat na maanaam woppar wopp na beneen boroom xam-xam muy ibnu mandur ci lisaan daf ne waqad takarrara dikru lmaarufi fi lxadis wa huwa ismun jaamiun li kulli maa urifa min taati illahi waltaqarrubi ilayhi walixsaani ila annaas wa kulli maa nadaba ilayhi shar nee na boo xoolee xadis yi da ngay gis lu bëree baree bëri muy tudd almaaruf te mooy lu baax rek alquran it noonu mu ne waaye loolu mooy lépp loo xam ne xam nañ ne lii ci topp yàlla ci la bokk lépp loo xam ne xam nañ ne day jegeel nit ki ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala moo xam jaamu yàlla yàlla comme julli ak koore wala dafa doon loo xam ne rafetal jëme ci doomu aadama yi la kon boo ko toppee boroom xam-xam yi noonu lañ ko toppe di ko xamle ibnul asir nag daf ca xamle al munkar mooy lan gannaaw bu mu xamle al maaruf ba noppi mu ne wal munkaru diddu al maaruf wa huwa kullu ma qabaxahu na safaanu lu baax nee na loola mooy lu bon kon mooy al mooy nag lépp loo xam ne sharia nee na rek lii baaxut lépp loo xam ne da ko araamal wala mu sib ko xamal ne kooku mooy almunkar kon ku doon gàttal définition yooyu nga xam ne moom la boroom xam-xam yi tudd te damaa tudd lenn la rek bàyyi la ca des waaye ñoom ñëpp ci menn maanaame la ñuy wax moo di nit ki ngir mu xam ne lii lu baax la ci sharia lay dellu bu sharia ne lii baax na mu xam ne loola lu baax la su ne lii baaxut mu xam ne loola baaxut kon li baax lépp boo ko doon tënk da nga koy tënk ci ñaari tomb mooy li nga xam ne dañ koo waral mu nekk waajib nit ki war koo def muy topp yàlla yi nekk ay farat wala mu doon loo xam ne luñ sopp la muy loo xam ne boo ca toppee yàlla def ko da nga cay am tuyaaba wala mu doon loo xam ne dañ koo daganal nga di ko jëfandikoo ñett yooyu yépp mën nañoo dugg ci cadre lu baax li baaxul nag mu ngi tàmbalee ca lu ñu sib mën naa yéeg ba àgg ci loo xam ne dañ koo alaamal mën a yéegaat ba bokk ca bàkkaar yi gën a mag mën a yéegaat ba bokk ca shirk ak kufur nga xam ne day génne nit ki ci diine yooyu yépp boo ko toppee ba ca jeexit wa du weesu tur wi al rek lañ ko tudde kon mooy lu baaxul kon lépp loo xam ne lu baaxul nga xam ne nit ki daf koo war a bàyyi wala waru koo def sax kooko mooy lu borom lépp loo xam ne nit ki daa war a daw jóg di ko defi en tant que jullit di ca wuti tuyaaba wala mu di ca wuti jàmmi àdduna ak joj àllaaxira te mu day dugg ci biir kaadaru almaaruf kon loolu mooy gàttalu fi ñuy jaar ba xam ko balance bi nga xam ne moom ngay jëfandikoo ngir xam ko kon du caagi ni mooy fétal du caagi ni mooy làmbatu waaye mooy sharia ci boppam buñ ne sharia mooy alquran ak sunna ak lépp loo xam ne dañ koo ballaloo ci ñaari ballulukaay yu mag yooyu muy alquran ak sunna lépp loo xam ne digle nañ ko ci alquran wala ñu digle ko ci sunna wala ñu wane ne sopp nañ ko wala ñu soññee ci wala sax sunu borom tabaraka wa taala akub yonentam ñi tagg ña koy def walla borom bi tabaraka wa taala ne yàlla bëgg na kuy def nàngam yàlla gërëm na kuy def nàngam yàlla dana terale ab yool ku def nàngam muy yool bu gaaw wala bu yeex xamal ne loola lépp ci maaruf bi nga xam ne dañ koo war a digle ci la bokk lépp loo xam ne tere nañ ko ci alquran walla ci sunna wala ñu wattandiku loonu ko booleeg leeral lor ju mag ja nga xam ne ma nga ca biiram ak danger bu mag ba làmboo ci dunduk àdduna ak dunduk alaxira wala alquran wala sunna ŋàññi ko walla mu tëkku ki nga xam ne daf koy def ci mbugal wala toroxtey àdduna walla jooj alaxira wala dugg sawara ak lu nuroog loola xamal ne loolu mooy almunkar kon defe naa définition boobu suñ ko jëlee danan daal di xam suñ ne al amru bil maaruf wa nahi an daal di xam al maaruf ak al ñaari baat yooyu ñooy lan su loolu leeree danañ daal di mën a jàll ci tomb bi ci sës muy solo ak importance bi nga xam ne digle lu baax ak tere lu bon am na ko li ñu jëkk woon solo si nga xam ne digle lu baax ak tere lu bon am na ko moo di loolu palaasam ci diine lislaam digle lu baax tere lu bon bu fekkee ne xam nañ xaqiiqab lislaam xam dëgg-dëggi woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ci lan la doon woote fan la jëme woon nit ñi lan la bëggoon ci ñoom suñ xamee loolu danañ xam ne yonent bi yàlla bi ab wooteem mi ngi ko tegoon ci baasub laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah laa ilaha illa nag mooy tawxid bu sell boo xam ne àndul ak dara ci bokkaale mooy jël say mbir lépp jox ko sa borom tabaraka wa taala te doo xëccoo ak moom ci dara muy ak taslimul kaamil kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dikkoon di nit ñi ci kàddu googu muy kàddu laa ilaha illa kàddu googu effort bi mu doon def ak coono yeeg jihaad baag lépp loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ko taxawee ci ak dundam ci di yëngu xamal ne ci woote ci biir kàddu googu loola ci biiram lay dugg ngir rek nit ñi nañu taxqiq tawxid maanaam nañ wéetal seen borom tabaraka wa taala nañu sori shirk nekk noonu yonent yi ko jiitu woon it loolu moo doonoon seenu liggéey moo tax borom bi tabaraka wa taala ne ko ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun mosuma yónni ab yonent ca lala jiitu lu dul ne li ma wàcce ci ñoom moo di jaamu leen ma man dong te bu leen ma bokkaale ak dara suñ xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la doon woote nu teg ca xam ne tawxid ndekete mooy maaruuf bi gën a kawe maanaam li gën a baax ci lu am mooy tawxid mooy wéetal suñ borom tabaraka wa ci loo xam ne xeetu jaamu yàlla la maanaam kon xeetu jaamu yàlla yi ba ca gën muy xeeti maaruuf yi ba ca gën a kawe moo di wéetal sunu borom tabaraka wa taala waaye xeeti munkar yi nag ba ca yées mooy shirk mooy bokkaale te mooy safaanub tawxiid su fekkee xam nañ loolu xamaat ne gannaaw boo xam ne li yées ci munkar yi am yépp moo di shirk muy bokkaale xam ne ba ca tegu mooy biddaa xam ne bu booba jàllee mboolem mooy yàlla yi ñoo ca tegu ñoo nekk ca martaba bu ñetteel ba loolu suñ ko xamee xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi ak dundam gépp moo ci saxaabaan dañ ko dund ba mu jeex ci woote ci tawxid ak digle sunna ak tere biddaa ak digle topp yàlla ak tere mooy yàlla kon danañ daal di xam ne seen dund gépp ba mu jeex da doon wër rek li ñuy wax almaaruf di ko digle di xool liñ doon wax almunkar di ko tere kon dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ci lan lañ ko jeexal ci al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar kon ci loolu lañ nekkoon ba jóge fi loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala wàcce alquran ci mbir moomu ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna an ilmunkari wa tuminuuna billah yéenay xeet wi gën ci xeet yu mas a wàcc lu tax moo di gannaaw bu ngeen gëmee yàlla ba noppi da ngeen caa teg di digle lu baax di tere lu bon kon seen liggéey bépp moo doon loolu loolu moo tax ma ne suñ xamee dëgg-dëgg diine lislaam akub yonentam ak i saxaabaam ci lan lañ nekkoon danañ daal di xam ban place la digle lu baax ak tere lu bon am ci lislaam ñaareel ba ci lu nuy won solo si nga xam ne digle lu baax ak tere lu bon am na ko mooy suñ xoolee safaanub lool maanaam safaanub ñàkk a digle lu baax ak ñàkk a tere lu bon li muy jur borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryam dalika bima asaw wa kaanu yactaduun kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuh borom bi tabaraka wa taala nee na rëbb nañ banu israil muy <coughs> suivi rëbb nañ leen ci làmmiñu yonent yi muy daawud muy isa ibn mariam lu tax ñu rëbb leen ñu ne mooy yàlla ga dafa bari woon ba jéggi dayoo ba noppi digleente wuñ lu baax tereente wuñ lu bon maanaam dañoo dem ba mooy yàlla ga àgg ci ñu ne cell lu neex waaye di def te kenn du ca wax kon foofu la àggoon loola moo dal banu israel suñ xoolee suñ jamono dañuy gis ne lu bari nag ci xeet wi tey xeetu lislaam nattoo nañ leen ak gàttañlu ci warteef wii muy bu digle lu baax ak tere lu bon loolu mooy sababu tumuranke gi nga xam ne lislaam tumuranke na ko jullit bi nga xam ne dafa nekk ci kaw suuf di dund te jéem a jàpp ci alquran ak sunna daanaka ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam melale woon moo ku ngëpp aw xal ñooyam foo tourné fu ne jafe-jafe la foo geesu fu nekk problème la foo xool fu nekk mooy yàlla ngay gis foo déglu fu ne moom ngay dégg kon mbon gi bari na ba jéggi dayo ba tax jullit bi day tiit di wax sax ne waaw ndax gàttañlu gi daloon banu israil bañ rëbbu leen ndax su xeet wi wattandiku lu mel noonu munta dal ci seen kaw wala iyaasu billah lu bari ci nit ñi tey fàtte nañ ne xeetu lislaam li leen ràññale wuutale leen ak weneen xeet wu mën a doon moo di digle lu baax ak tere lu bon fàtte ne seenu gën yeneen xeet yi ci des itam foofu rek la tegu kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar li feeg yéen a ngi def loolu yéen a gën ci xeet yi waaye saa bu ngeen ko bàyyee nag xam leen ne nag bu boobaa mën ngeen a dem ba yées ci xeet yi wala gënatu leen kenn bu boobaa maanaa yu mel noonu muy yëg-yëgub ne yow da ngaa war a góorgóorlu ba xam lu baax di ko digle góorgóorlu ba xam lu bon di ko tere yëg-yëg boobu dafa dem ba suufe lool lool lool ci biir xeet wi loolu moo tax dem ba kéefër mën a yëkkati boppam ca kaw biddaa mën a yëkkati boppam ca kaw mooy yàlla mën a yëkkati ci boppam ca kaw ba xaw a muur jaww ji ak suusi ba bu sunna feeñee sax ci société bi ñu ne lii biddaa la bu tawxiit feeñee ñu lii bokkaale la dem ba mooy yàlla ci jëmmi boppam dem na ba yëg-yëgu doomu aadama yi nangu ko maanaam li ñu tudde guu dem nañ ba seen guu nangu na mooy yàlla yàgg nañ koo gis di ko xool di ko déglu di ko déglu ba mu yàgg amatuñ ca mer amatuñ ci aw naqar wala iyaatu billah dem nañ ba àgg ci nit ki nga xam ne day nangoo jaxasoo ñu mel noonu sax dañuy wax ne kii moom ku dégg jamono ji la ku mën a jaxasoo nit ñi la ku am yitte la ku xam doomu aadama yi su ko defee mën naa jaxasoo ña nga xam ne ña ngay dund ci biir muubiqaat ya muy musiba ya gën a mag toog ak ñoom ñi naan sàngara mu ne ginnaaw naanuma rek loola baax na te du yëkkati genn kàddu gu jëm ci ñoom goo xam ne gu leen koy tere lay doon su ko defee ñu kooku dëppoo na ak jamono képp koo xam ne nag àgg nga ci soo gisee lu bon tere ko soo gisee lu baax digle ko kàddu ya ñu lay sànni xeetu tur wu nekk ak xeetu sant wu nekk danañ la ko tudde santane la ko ñii danañ ne mutashaddid la dafa taral diineem ñii ne dafa teeŋal diineem xeetu tur woo xam ne gis nañ ko woo xam ne rek bu ñaaw la danañ ko sànni ci sa kàddu ci sa kaw ci sababu digle lu baax ak tere lu bon kooku ci yi wone am solo goo xam ne digle lu baax ak tere lu bon dana ko wone ci la bokk ndax saa boo xamee ne bàyyi nañ ko fu mel ni foofu ma wax fi leen jëm te foofu nag mu si la mu di dem ba kéefër ak biddaa ak mooy yàlla yëkkatiku imaan ak sunna ak topp yàlla féete suuf loolu su amee ci aw askan wu mu mën a doon sooy boo séentu métit fii ci àdduna avant àllaaxira di ñëw ñetteelub li nuy won am solo goo xam ne digle lu baax ak tere lu bon am na ko moo di ne kooku moo di melokaanu ahlul iman ñi gëm yàlla moo xam ay góor lañ moo xam ay jigéen lañ bokk na ci seen i melokaan ne dañuy digle lu baax di tere lu bon saa buñ ko bàyyee nañ yëg ne seen iman wàññiku na ci kem lañ bàyyi ci digle lu baax ak tere lu bon moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baad ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkari wa yuqiimuuna as-salaata wa yu'tuuna az-zakaata wa yutii'uuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika sayarhamuhum allahu inna allaha 'aziizun hakiim borom bi tabaaraka wa taala nee na ñu gëm yàlla ñu góor ñi ak ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi ñooñu nee na ñenn ñu ci nekk péeteem seen moroom lañ ñenn ñu ci nekk péeteem seen moroom lañ seeni màndarga mooy lan mu ne yamuruuna bil maaruf foo leen fekk dañuy dégle lu baax wa yanhawna anil munkar dañuy tere lu bon foo leen fekk di taxawal julli ca nam jaadoo ci waxtoom di joxe asaka su waree ci ñoom di topp yàllaa ko yonentam maanaam jàpp ci alquran ak sunna ñooñu borom bi tabaraka wa taala nee na ñoo yeyoo yërmaande sunu borom tabaraka wa taala boo xoolee ci biir laaya ji dangay gis solo soo xam ne digle lu baax ak tere lu bon am na ko ndax bi mu nee wal muminuuna wal muminaat kon imaan la jëkke ñi gëm yàlla ñu góor ak ñi gëm yàlla ñu jigéen bi mu daataan tudd julli bi mu daataan tudd asaka dafa jiital digle lu baax tere lu bon moo tax mu ne yamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar wa yuqimuuna salaata wa yu'tuuna zaka dañuy digle lu baax di tere lu bon boole ko ak di julli boole ko ak di joxe asaka kon loolu lu am solo la loo xam ne lu mat a bàyyi xel kon ñetti tomb yooyu yëpp ak yeneen i tomb yu bari sax nag daf nuy won ne bunt bi bunt bu am solo la ci biir dundu jullit yi saa buñ ko sàgganee yëgal ne xeetu lislaam ngay wàcc ma ngay dellu gannaaw saa buñ ko joxee xam-xam jàppal ne xeetu lislaam ñi ngi dox jëm kanam donte seenu dox mën naa yeex waaye jege jëm kanam jëmuñu gannaaw ñetteelu tomb bi nag moo di digle lu baax ak tere lu bon dafa doon liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la boo xam ne dafa laajit li ñu tudd al moo tax ñu ballalu lenn ci ay tomb yoo xam ne ay qawaid lañ ko tuddee lu bari ci borom xam-xam yi tudd ko ci seeni yi téere donte taalifuñ ko noonu mu doon ab téere waaye boo koy jàngat léeg-léeg nga dem ba mu yàgg nga gis loo xam ne dalay wóor na lii ab qaida la nga tànn ko jël dajale ko bu yàggee loolu dana mën a nekk ay xawaayit yoo xam ne des na ko mën a jëriñoo ci bunt bu mel noonu daanaka noonu lan jëfandikoo ci tomb bi mooy dajale lenn ci tomb yoo xam ne daa aju ci bunt bi ci sunum njàngat ci téere yi boroom xam-xam yi kon ci lañ ko ballaloo ci lañ ko génne dajale ko mu doon loo xam ne ay xawaayit la yoo xam ne xëy na bariwut waaye danañ ko jàngat insha allahu ngeen dégg ko xam-xam nag boo gisee jànge ko ci wàllu li ñuy tudde xawaid muy ci ay règle mu doon loo ne lu am solo la danaa ko faral di baamtul mbokk yi lool lool lool moo di xam-xam ay masala la ak ay xawaid masala masala rek la mën tudd maanaam boo demee ci julli dafa fees dell dell ak i masala boo demee sax ci biir détails yi nekk ci biir julli masaa ci ay sang rek boo ko jëloon kooku masala yu bare bare bari nekk ci biir kon ci jóg di jàng diine bëgg koo mokkal par masala kooku dana sonn te du dajal waaye qaacida buñ ko waxee day doon benn régal boo xam ne masala yu bare bare bari dañuy dugg ci suufam nga xam ne boo mokkalee qaacida boobu rek masala yooyu yépp dañuy mën a teel masala yépp dañuy mën a teew moo tax dama koy faral di nuróole di wax ne ki nga xam ne dafa jàng xam-xam jaarale ko ci jàng ko par masala mi ngi mel ne ka taxaw ca géej ga di wut jën maanaam di rëbb jën yor li ngeen di tudde ab onze dafa naa noonu ngeen koy tudde di sànni par benn boo sànnee bu ko aw jën saxee boo ñoddee boo génne muy wenn nga sànniwaat di ko def yàlla moo xam dana jën dana ko seq wala du ko seq su ko saxee dana génn wala du génn waaye daal noonu ngay doxale kooku diisul ne du am dara waaye wax dëgg yàlla ab liggéeyam moo gën a metti ki ñëw rek yor ak mbaalam daal di sànni jën yu baree bari dugg ci biir benn yoon mu xëcc fu génne mu daal di doon jën yu am solo defe naa ne kiy jàng xam-xam ci wàllu qaida misaal la ci moom ki nga xam ne dafay rëbb te yor ak mbaal waaye ki nga xam ne da koy jàng nag par masala masala kooku dafay mel ni ki yor onze taxaw ci géej gi loolu moo tax <coughs> tekkiwul nag ne masala di su ko jàng umu koy des koy jàng waaye li ñu jublu mooy nga bëgg ko bëgg a mokkal boo bëggee mokkal bunt bi bëgg ko jaaree ca masala yi mën naa joxe lool waaye boo jàngee masala yi ba dégg ko nag ba noppi xam qaida bi da ngay daal di xamaale masala yi nekk ci biir qaida boobu su ko defee mu daal doon ci yow loo xam ne mooy gën a yomb loolu moo tax boroom xam-xam yi ñi ci yàlla gën a may ci tawfiq gannaaw boo xamee ne ixlaas jàll na ñi gën a am tawfiq ci wàllu fatwa mooy ñi gën a ittewoo ci buntu xawaid ndax su fekkee ne xas nga xam qaida xam usulu sharia ak i maqasidam bépp masala bu ñëw bu mën a doon mën nga ko delloo ci benn qaida loolu moo tax euh, ku ñuy wax cheikh abdurahman as saadi rahimahullah ci mutaaxiroon yi muy boroom xam-xam yu mujj yi xawma ci ku ko gën a ittewoo wàllu xawaayid moo tax bind na ay téere yu bari yoo xam ne da ko génne ci ay xawaayid xawaayid yoo xam ne ci tafsir la ko jële xawaayid àggoon na ci ay taalibeem da leen di tàggat ci loolu da lay jox ab téere ne la jàng ko ba mu jeex nga génne li ci nekk ci ay xawaayid loolu cheikh ibnu usaymin rahimahullah moo ñu ko nettali te kenn ci ay taalibeem la nee na bu ñu daan jàngal daf ñuy jox ab téere ne tàmbalee téere bi ci bunt bi jàng ko ba mu jeex bépp qaayida boo dajee la bind ko ne soo noppee indil ko qawaayid yi nga dajale mu xool <coughs> lu mu ci gis wax la ko bu fekkee xaa qaayida la mu ne la bii baax na bu dutu qaayida mu ne la boobu baaxul bu noppee ne la jëlaat ko dem jàngaat boo ko defee ba mu ñetti yoon ba ñeenti yoon da xam lan la jublu ci xawaayit yooyu dëgg-dëgg te fekk jàngaloon na la ko sax ba noppi waaye ci ngay mën a déggee nag wàllu qaida lu mu doon moo tax cheikh mohamad ibnu usaymin rahimahullah ci ñi ëpp xam-xam ci wàllu xawaayit ci la bokk ci jamonoom ji mu doon dund moo tax ci wàllu fatwa ak ci wàllu xóot ci wàllu ijtihaad ijtihaad ak delloo furuu'i masaayil yi ci seeni abwaab barqaas bu ñëw bu ne mu delloo ko ca buntam loolu moo ci rawoon borom xam-xam yu bare bare bari ci ak dundam te fekk jaare xam-xam ci wàllu qaayida moo ko juraloon loolu kon bunt la boo xam ne bu mat a am bu am solo la a bàyyi xel la qaayida bi ñuy njëkk wax moo di ne al amru bil maaruf wa nahyu an il munkar aslu daawati ila allah woote jëme ci yàlla ak digle lu baax ak tere lu bon ban alaaqa maanaam ban rapport moo war a dox seen diggante moo di digle lu baax mooy cosaan li digle lu baax tere lu bon mooy cosaan li loolu moo tax mu gën a jafe moo tax moo gën a jafe woote ndax daawa ci boppam mën naa am ci ay wax waaye mën naa am ci jëf ci jëf léeg nit ki mën na jëf te waxul dara sa melokaan rek ak sa jëflante ak sa jikko mën naa woo ay nit ba dugal leen ci lislaam fekk defu benn effort mën naa doon sax commerçant boo xam ne ma nga ci bitigam di jaay ak jënd waaye jikkoy lislaam la yor ma ngay daawa ci jikkoom ay nit a ngi dugg ci biir lislaam mën na ko yëg mën na ko ñàkk yëg waaye nit ñaa ngay jariñu ci moom kon daawa ni nga xamee ne buntam moo gën a yaatu noonu la gën a yomba jëfee ci lenn ci ay buntam waaye nag digle lu baax ak tere lu bon dafa gën a xóor ndax dafa dugg ci defal ak bul def defal ak bàyyi képp koo xam ne day digle di tere jaadu na mu xam ne <coughs> digle ak tere doonut loo xam ne lu simple lu yomb ñaareel ba moo di ne annahyu an il munkar yaani taxyirahu bilmaraxil almaarufa wa huwa asqalu min al amri bil maaruf buñ nee tere lu bon yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne ku gis ci yéen lu bon na ko soppi ci loxoom su ko mënul ci loxoom na ko soppi ci làmmiñam su ko mënul ci làmmiñam mu mer mu am lu ko naqari ca loolee muy gis mu teg ca ne loolu nag mooy li gën a suufe ci ngëm yàlla mooy ngëm yàlla gi gën a suufe am na beneen riwaay boo xam ne yoo xam ne wa laysa waraa dalika xabbatu min iman lu weesu loolu nee na ngëm nekkatu fa maanaam ki dem ba àgg ci ak suufeem ñëw na ba su gisee lu bon du ca mer nee na kooka euh, ngëm nekkatu fa tere lu bon nag dafa gën a diis ndax nit ñi nekk ci lu bon bànneexu bakkan lañ topp seytaane lañ topp adduna lañ topp <coughs> kooku ngir nga wax ak moom ba génne ko ci loolu laaj ne ay bunt yooyu jaar moo tax tere lu bon moo gën a jafe digle lu baax ki nga ñëw ci moom ne ko ah mbokk mi de waxtu julli jot na nan julli kooku du yëg ne am na benn problème bu fekkee jullit la day jàpp rek ngeen ànd julli ah weer wi day feeñ na biig nañ xëy woor yaa ngi dégle lu baax de day xëy woor insha allah ndax dégg na li nga wax waaye nag ki nekk ci dara ki nga ñëw ne ko sama mbokk jullit cigarette si ngay tux lam bii nga takk photo yi nga takk sa dënn bi bàmmeel bii ngay raay yooyu boo ci duggee ak moom da nga yëg ne tere lu bon moo gën a jafe bu dee soxna sa ñàkk muuru gii sa yaram yi ngay feeñal lii nga sol di ko génne boo waxee jëm ca loola foofu ngay yëgee ne nag tere lu bon moo gën a jafe kon digle lu baax donte ñoom ñaar foo de al amru bil maaruf nahyi anil munkar moo ca tegu daje nag dafa am tawfiq boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ko def foofu moo di ne moo te mooy qaida bii di ñëw moo di ann al amra bil maarufi nahyun anil munkar jëmmi digle lu baax ci boppam dafa làmboo waale tere lu bon seetlul ne ki ngay digal tawxiid yaa ngi koy tere bokkaale ki ngay digal sunna yaa ngi koy tere biddaa ki ngay digal mu topp yàlla yaa ngi koy tere mu mooy yàlla kon jamono yi ngay digle lu baax bokk na ci tawfiixi suñu borom tabaraka wa taala yaa ngi am tuyaabay koo xam ne itam day tere lu bon ànd ak loolu nag téewul am na ay bon bon yoo xam ne ngir nga mën koo tere nit ki faaw nga tudd ko nag mu door a xam ne lii lu bon la ginnaaw amut xam-xam koy jëfee faaw nag nga tudd ko mu door a xam ne a xam ne loolu lu bon la kon ànd ak ne digle lu baax dafa làmboo tere lu bon waaye am na yu bon yoo xam ne faaw nag ñu tudd ko léeg-léeg da nga gis nit ñi nit ñi naan diw sàngam de ni mu baaxee kilifa sàngam moom moom suy digle lu baax rek lay digle di tere lu bon te boo dégloo la muy wax mooy maa ngi leen di denk yéen jaamu yàlla te bàyyi lépp loo xam ne mooy mooy yàlla waaw loolu mooy lan am na yoo xam ne doo yam foofu dafa laaj nit ñi ñu xam ne lii ci lu bon li la bokk nañ ko bàyyi li fekk tudd ko duñ xam ne loola ngay wax rawatina suñ gi gisee ne yow yaa ngi leen di xool gis ñu yore loolu te waxoo ca kon dañuy jàpp ne lu baax la ngay digle ak lu bon la ngay tere bokkut ak nii ñu mel ñoom su ko defee dañuy jàpp ne niñ mel noonu baax na ba ca tegu moo di yajibu tartibu l awlawiyat fi hada al baab buntub yi baax nekkuñu ci benn martaba tolloowuñ ñoom ñëpp waaye yi bonit nekkuñu ci benn martaba kon kay digle lu baax faaw mu xool priorité yi la kaw mu tàmbalee ca te ëpp solo defe naa yéen ñëpp nangu ngeen ne la kaw ci yu baax yi mooy tawxiid jaar nañ ca léegi kon foofa la ñuy tàmbalee ak nit ki loola moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yónnee Muaaz ila al Yaman lam ko wax mooy boo demee la nga leen di jëkka woon a doon tawxiid suñ la wuysee ci tawxiid nag nga door leen a digal nangam digal leen nangam digal leen nangam kon mbokk mi nga ñëw di ko digal si lu baax fekk ndekete ci sirk la nekk doo ñëw tàmbaleeg moom ci ni ñuy nu ñuy ni ñuy jullee di ko jàngal sifatu salaati nabi te fekk mi ngi ci sirk tàmbalee ak moom ci li gën a ñor muy jàngal ko tawxid ba mu xam ko su ko defee nga wàcc ak moom jamono yi nga koy jàngal tawxid nag muy nangu di jël mën nga ko boole di ko jàngal julli muy gis diisul wax ne day toog di julli du woor ba keru muy am tawxid door a tàmbali jullee koo déedéet waaye nag lay farata ja ca digal ko yu baax ya nag mooy tàmbalee moom ci tawxid soo noppee di wàcc ak moom ki nga xam ne it ci bokkaale la nekk bul ñëw di xulóog moom ci lamu béy bu ñuul bu mu takk di ko wax ne ko lii dañ koo xaraamal wala nangam dañ koo tere tàmbaleel ak moom ci bokkaale googu yi mu nekk ba mu bàyyi ko ba noppi nga door a wàcceeg moom ci yeneen yi nga xam ne ñooy yu sew sewaan yi moo tax léeg-léeg nit nekk ci njaaxum yu rëy ba noppi bëgg laa xëcc nag yóbbu la ci débat boo xam ne foofa du wàllam maanaam moom war a gut a wax foofa ñëw di discuter ci ndax cigarette dafa xaraam ak du xaraam xaraamul te mu ngi takk ay gàllaaj yaram foo xool fu nekk ak ndombaanga wala ak téere wala dara wala ay xor mu ñëw naan la cigarette nangam nangam waxal ak moom mu tàmbalee ci li am solo nañ tàmbalee ci yii nga takk ba noppi ndax mooy feebar bu mag bi suñ ko fajee ba mu wér nag ñu door a wëlbatiku nag waxtaan ci yii ngay wax kon buum la ci mukk ba yóbbale ci masala boo xam ne du wàllam ndax su boobaa dana yàq sa temps te boo waxoon ba convaincre ko ci loola tam continuer mel na mel loola du ko amal benn njëriñ ndax ki tuxul ba noppi di bokkaale kooku musiba la ba tey dafa am munkar yoo xam ne yu fës la maanaam yu bon yoo xam ne yu fës a fës la yooyu tàmbalee ci moo gën di dem ci yu nëbb yi di ko gëstu ndax wax dëgg yàlla ki ki ne fang di naan sàngara wala jigéen ji ne fang def mu neen nekk ca marché ba wala mu nekk ca école ba waxe foofa ak wax ak ñooña moo gën di farata di luñitu li nekk ci biir néeg yi lu ñu fay dund ak biir kër ya pour man koo xam ngir bëgg leen laa biir kon bokk na ci awlawiyaat yi muy priorité yi tàmbalee ci munkar yi feeñ door a dugg ci yi nga xam ne dañoo nëbb ànd ak ne lu bare bari nag ci munkar yi nëbbu sax mu yu bon yi nëbbu sharia sàkkuwul yow nga dem di ko di ko seet kooka diggante kay nëbbu la ak boroomam tabaraka wa taala qaayida ba ca tegu te mooy juróomeel bi assukuutu an il yu yuxawiluhu ila aada ña nekk ci lu bon di ko def nit ña ne ca cell bu yàggee day dem ba nit ñi miin ko day mujj lu bon loolu day mel ni aad day mel ni aada ci seen biir lu jiitu tubaab yi di dugg ci sunu réew yii loola sax sori na maanaam jamono yoo xam ne rek daanaka dangay ngay wax ne ndun ñuy fàttaliku nan ci lu bare bare bari soo dikkul ci taax yi nga xam ne tubaab yeeg seen yëf ak siwu ko néew na nga dox ba daje góor goo xam ne dafa wàcc ak sikkimam néewoon na néewoon na nga dox ba dajee góor goo xam ne dafa sol sér yoo xam ne dafay watu maanaam dafa def li ñu tudde isbaal néewoon na nga gis koo xam ne dafa taxaw ne fànn di tox moo xam cigarette la yor moo xam gën lu néew la woon néewoon na nga gis jigéen ji summiku carrément ab dënna mag ya warta feeñ ci moom di feeñ képp koo xam ne mas naa def loolu ci suñ société yi ci fii da nga dégg nit ñi def ko mu nekk seen buntu waxtaan fuñ toog buntu waxtaan waxuma la nag jéggi dayo bay àgg ci ay njaaloog yu mel noonu buñ gisoon koo xam ne day dox yu mel noonu sax ñu toogee dañu naan diw sàngam day dégg naa ñu ne day dox tànk caaxaan su ko defee ñu def ko buntu waxtaan kon loolu mooy bi nga xamee ne noon bi jékkoo guñ nu waaye bi nga xamee ne yooyoo ngi am ndànk-ndànk nit yi ne ci cell mu mel ni yooyu yépp dafa doon yu dagan mu yokk ndànk-ndànk di dem dafa dem ba àgg foo xam ne nit ñi def nañ ko aada wala lu bari ci ñoom yu ci bari tey ci yii ma tudd boo dikkoon ci nit di ko ci laabiire ngir mu xam ne du noonu da ngay dégg mu ne la am na yeneeni mbir yoo xam ne ñoo gën a garaaw yi nga may wax kon lu mel ni lii moom daanaka jaratul wax léegi parce que société bi yépp loolu la ñuy dund maanaam day mel ne société bi ginnaaw moom la ñuy dund daal day mel ne kon soppiku na nekk lu baax waaye nag ànd ak loolu lépp cellu ki xam ne dafa bon ba noppi ne cell kooku musiba mu mag la ndax dafay jur ay ayib yu bari ki nga xam ne dafa xam te gis lu bon mu ne lii lu bon la moo xam da ko wax ci njàngaleem moo xam da ko wax ci xutbaam moo xam da ko wax ci rajo ba moo xam daa ñëw toog ak nit waxtaan ak moom digal ko lu baax tere ko lu bon ndax bunt yi ñuy digle lu baax yi ñuy tere lu bon bunt yu baree baree bari la su xasee def loolu am na ñaari njëriñ benn bi moo di ne setal na ak xam di dox digganteem ak boroomam maanaam jaanam wàcc na beneen njariñ ba te bu ci nekk njariñ yu teew la waaye njariñu ëllëg la insha allahu taala mooy ëpp moo di ne boroom xam-xam bi gis lu bon su xasee wax ne lu bon la doon doonte ñi koy dégg te doonuñu boroomi xam-xam ña nga nuur ca loola di ko jëfe bàyyiwuñ ko it du teel yi nekk seen xel mooy li ñuy def baaxul danañ xam ne li ñuy def baaxul ndax dégg nañ borom xam-xam yi nee nañ baaxul kon nangu nañ ne baaxul waaye dañuy wax nag ah doonde danoo sàggan rek mënaguñ koo bàyyi nangam nangam kon mën nañu wut yeneen lay su fekkee nag borom xam-xam ne dañ ne cell lu muy jur mooy ki nekk ci lu bon li day jàpp ne moom lu baax la parce que su baaxul woon kon diw sàngam dana ko tere hmm? loolu nag musiba mu mag la ndax day dem ba mu yàgg attey sharia ci boppam day soppiku ci xeli nit ñi loolu nag yu bari bari moo ci dal nit ñi tey bari na yu xaraam yu bari yu nit ñi def tey soo taxawee ne leen dafa xaraam li ëpp ci nit dañ lay wax ne su xaraamoon lu tax diw sàngam di ko def kilifa sàngam gis nañ soxnaam muy def nangam gis nañ doomam muy def nangam wala moom ci boppam sax gis nañ muy def nangam te su fekkoon ne eh, loolu dafa xaraam kon moom du ko def kon loolu mooy gravité bi nekk ci noppik boroom xam-xam ci boo xamee ne dafa gis loo xam ne lu baaxut la beneen bi ci tegu muy beneen qaayida bi mooy la lisdiwaajiyati almaayir fi inkaari almunkaraat li bon lu bon rek la tudd donte ñi koy def sax dañoo bari ba jéggi dayo nga xam ne suñ demoon ba xeet bi wala iyaasu billah quatre vingt pour cent am na lu bon loo xam ne dañoo àndandoo di ko def loola du tax mukk mu soppi ku doon lu baax moo tax sunu borom tabaraka wa taala dafa wax ne qul laa yastawi alxabiis wa tayib walaw ajabaka kasratu alxabiis lu baax ak lu bon duñ yem mukk doonte dem na ba mu yéeme lool bari gi nga xam ne lu bon bari na ko maanaam lu bon lu mu bari bari bari du tax mu mujj soppiku mukk doon lu baax moo tax mu teg ci ne fattaqullaha yaa ulil albaabi laallakum tuflixuun boo xoolee liy dox ci àdduna léeg-léeg dangay gis yu la jaaxal lool ci société yi ak ci même loi yi sax nga xam ne moo xam loi internationaux yi la yi nga xam ne ci sunu réew yi ñoo koy àtte dorog ci àdduna bépp àndandoo nañ criminaliser ko maanaam tajrim li ñuy tudde dorog nga xam ne fu ko nit def am na mbugal mu war a tegu ci kawam mbugal yooyu mën nañoo wuute nag am na ñoo xam ne rey buñ gisee yow drogue loolu mooy àtte la am ñoo xam ne dañ lay tëj tëj bu yàgg am ñoo xam ne dañ lay alamaan alal tëj la am daal mel num réew moo ne nangu nañ ne moom drogue mënees na koy jaay loolu defe naa ne kenn gisul wala am na ku ko gis <coughs> nga xam ne d'accord nañ ci loi bi nee nañ mën nañoo jaay drogue kon ñoom ñépp d'accord nañ ci àdduna ne drogue munkar la dañ koy tere it ku ko def itam danañ la sanctionné man ne am na lu ñuy teg ci sa kaw waaye sàngara da ñëw ci réew yooyu nga xam ne ñoo araamal drogue ba àgg foofu ñu wëlbatiku ne la nit ki mën naa ñëw ñu jox ko autorisation mu ubbi baaram di jaay sàngara nit ñi ñëw di naan dem ba àgg ci station bi nga xam ne fa la ñuy jaayee carburant nga ñëw nañ lay tegale ay boisson sucre noonu lañ lay tegale sàngara si ci wetam boo bëggee jënd li naan boo bëggee jënd li naan dem ba àgg ci ay mbuus yu ndaw yoo xam ne dañ koy jënd di ko jaay gone yi mu nekk sàngara bi di ko naan waaw sàngara ak drogue dañoo bokkul di leen lu ci ne day yóbbum xel te doomu aadama lépp lu yóbbu am xelam musiba la ci moom kon defe naa ne isdiwaajiyatul maayir ci bunt boobu lu aaje xoolaat la lu aaje xalaataat la bu leen am sikki sàkk ci ne tubaab yi rek ñoo ko tëdd ñoo ko defe noonu te li nekk ci gannaawam weesu wut xaalis doon amut leneen wut xaalis boo gisee <coughs> noir yooyu yi nga xam ne ñoo nekk ay yu mel noonu ñooñu nga xam ne dañ doon défi àdduna bi di leen di ci ne dañuy tux yàmbaa ñoom te duñ naan sàngara duñ naan fenn sàngara loolu lañ ci jublu woon ñoom dañuy xeex tubaab bi ànd ak ne xeexin wu doy waar ndax nee nañ dañoo gis ne jëmmi tux yàmba ak drogue ak yu nuroog yooyu amul benn effort boo xam ne ñoom mën nañ cee jaare ba amee ci xaalis nit ki nga xam ne amul benn pexe amul dara mën naa bay ab toolam bay fa loola bu waxtu tux jotee mu dagg ci tux du soxla sàngara si kenn du def dara te ñii dañoo yor usine yoo xam ne sàngara fa nekk ñu bëgg cee liggéey bëgg koo jaay bëgg seen économie taxaw ci loolu ñu ne kon nañ xeex lu yomb lële indi lii nga xam ne dafa ñuy jox xaalis kon xalaat bi ci boppam foofu la départ moo di nit ñi bu ñu leen yombalal ñuy bay rek di toog di màndi kon day yomb ci ñoom lool waaye ginnaaw wàllu industrie ak liggéey nag ci suñ loxo la nekk noo am pexe yooyu nan fexe ba lañuy jaarale ca usine ba door koo naan mu doon loo xam ne luy dagan lay doon fépp li nga xam ne day yomb nag ñu fexe ba fépp araamal ko xalaat bi foofu la départ boo gisee ñële ñi ñi lancé ne ñoom duñ naan sàngara te dañoo fas yéene continuer di bay di tux ñooñu xeex ñii lañ ci jublu ci xalaat boo ko nag xeex xalaatu économie boobu ko tax de jullit bi nag day wax ne loolu lépp dara baaxu ci moo xam lu ñuy tux la moo xam lu ñuy fóot la moo xam lu ñuy naan la lépp lu xaraam la loo xam ne amul benn nattukaay buy wuute ak bii lépp lu bon la dañ ko war a tere dañ ko war a sànni ci àll ba te dañ ko war a criminaliser comme niñ ko defee drogue yépp benn lu yàq doomu aadama la kon ñu xam ne ci digle lu baax ak tere <laughs> tere lu bon ci lislaam amul loo xam ne dañ lay wax ne da ngay digle dara fi béréb ba noppi même même loolu beneen béréb ñëw nga daganal ko foofu loolu mënta nekk ci ci doxinu lislaam faayda bi ci tegu laa yajuusu inkaaru almunkari ida addaa ila munkarin akbara aw musaawin lahu lu bon a ngi lu bon de tere rek moo ci war a tegu waaye xam xam nga ni lii soo ko tere woon dana juraat lu toll ne moom lu bon <coughs> wala mu juraat lu bon lu ko yées su boobaa lislaam nee na lu bon loolu bàyyi ko fa bul ko tere bàyyi noonu danaa wax ak qaida bi gis nga lu bon loo xam ne wóor na la ne lii boo ko teree la muy jur tere ga la muy jur mooy mën naa jur lu bon loo xam ne moo yées lii wala lu bon loo xam ne day tolloo ak lii kon lislaam nee na loola bul ko tere loolu day dugg ci bunt bi ñu tuddee saddu zaraa muy bunt bu màgg muy wépp yoon woo xam ne boo ci jaaree mën naa jur musiba woowa yoon dañ koy sakk moo tax borom bi tabaraka wa taala kenn ku nekk xam na ne yéefar yéeg noonu yàlla yi ŋàññi leen ci jaamu yàlla sax la bokk waaye borom bi tabaraka wa nee na su fekkee soo ŋàññee noonu yàlla bi moom du la ŋàññi yow waaye yàlla ci boppam lay ŋàññi faf nee na kon bul ko ŋàññi bàyyi ko wala tasubbu alladina yadcuuna min duni illahi bi gayri ilm bu leen ñëw mukk di ŋàññ seen yi ñuy jaamu ndax su ngeen ko defee ñoom yàlla la ñuy ŋàññ ngir seenug noonoo ngir seenug réer goo xam ne bu jéggi la kon mu ne su fekkee ne sag wax lu ñaaw ci xërëm yi ñuy yi ñuy jaamu day yóbbee ñoom ñi wax lu ñaaw ci yàlla nee na kon bul wax lu ñaaw ci xërëm yi ñuy jàpp maanaam tëy ci saw làmmiñ te soppee ko neneen soppee ko neneen lu bokkul ak noonu kon su fekkee wóor na la ne soo ŋàññee bopp yi nga xam ne ñooy boppi kéefër nekk boppi bokkaale nekk boppi réer maanaam njiit yi laa bëgg a wax njiitul kéefër ak bokkaale akub réer ak biddaa su fekkee wax ci ñoom lu ñaaw day tax ñeneen topp wëlbatiku wax ci ahlul iman ak ahlul tawxid mooy ñu baax ñi nga xam ne ñoo jàpp ci alquran ak sunna di wax ci ñoom wax ju ñaaw kon su boobaa ñële xeexe leen neneen nu dul wax wax ju ñaaw jëmale ci ñoom am na nag yoon yu bare bari yu ñu war a mën a jaar rek ba xeex ak ñoom yu bokkul ak xas leen ak saaga leen su la wóoree ne diw sàngam mii lu bon lii mu nekk di ko def soo ko digalee lu baax wala nga tere ko lu bon

su fekkee wóor na la ne jëmm a ngi joo xam ne mi ngi def lu bon te boo ñëwee ci moom lu bon loolu nga tere ko ko mën naa tax tere gi mën naa tax mu saaga diine ji wala mu saaga sunna ci boppam walla mu wax ci sunna lu ñaaw kon loolu mu nekk bàyyi ko ca te jaaree ko ci beneen bu dul ñëw directement tere ko loolu moo tax yoon yi nga xam ne ci lañuy ñuy jaare nag ba mën a jot li lu baax mën a tere lu bon doon loo xam ne lu mat a la ndax lépp loo xam ne dafay jur loo xam ne day yàq loola lislaam wootewu moo tax qissa euh, bi ñuy faral di nettali ci cheikhul islam ibnu taymiya te ibnul qayim di ndongaam nettali ko nee na jamono yi nga xam ne noon yi dañoo nekk Baxdaad ñu ñi ñuy tudde ak tatar euh, di lor jullit yi lor yu méttee métti ëpp leen doole di rey seeni bakkan tuur seeni deret di jalgati seeni alal di jalgati seeni orma muy seeni jigéen cheikhul islam ibnu taymiya bokkoon na ci ñi nga xam ne moo ki ndongaam dañoo génnoon di jihaad di xeex ak ñooñu benn bés dañoo romb am mbooloo ci ñoom yi toog ci benn béréb teg seen taabal di naan sàngar kenn ci ndongo yi ànd ak Ibnu Taymiya ne ko ah nan dem tere leen li ñuy def ndax duñ dem tere leen li ñuy def mu ne ko déedéet bu leen ko tere parce que ñii suñ màndee dañuy dem tëdd nelaw suñ àndeek seen sago nag dañuy tuur ay deret di fab ay alal di xotti ay orma nga comparé ñaar yooyu ndax musibam mu toog di naan sàngara bu noppee nelaw moo gën a rëy walla musibam tuur dereti jullit yi fab seeni alal xotti seeni orma defe naa ñi am xel ñépp xam nañ ne musibam tuur deret ak xotti orma ak fab alal moo gën a rëy musibam ab kàccoor bu toog ci taabalam di naan sàngara mu ne ko kon bàyyi leen su doon ci nitu tey ñi nag dañu daal di wax ne ah cheikh bi de moom gis na kuy naan sàngara te da ko bàyyi rek mu continue di naan noonu fekk ndekete foo loolu la ñuy tudde fiq ki nga xam ne dafa xam fiqhul awlawiyaat xam li ñu tudde fiqhul mafasid wal masaalih xam li nga xam ne lor mën na caa tegu ak li nga xam ne lor mënu caa tegu ñu koy tëdd tudde fiqhul maalaat muy mbir mi lan moo ci nar a tegu su fekkee def naa nàngam bunt boobu ñi ko xam ñoom ñoo war a xuus nag ci buntub digle lu baax ak tere lu bon bokk na ci ay tatbiqaatam ñu misaal yi koy wone mu di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu Aïcha bi nga xamee ne yéefar yi dañ doon tabax kaaba gi dañ ko tabax mu manqué nam toll woon maanaam bi mu demee ba am wal mu mag a mag ñëw maanaam inondation bu mag ñëw biir Makka kaaba gi toj ci jamono yéefar yi ñu ñëw di ko tabaxaat dañ ne woon lu lewut rek di su ko ci def biñ def dajale seen alal ji lew jépp gis ne mëtul nag kaaba gi di tolluwaat na mu toll woon ñu nekkoon nañ ci wàññi tuuti ñu daal di koy xaajale tabax leen li bàyyi leneen la ca des loola di dem di dem di dem ay jamono yu yàgg la sakka ni ñi juddu ba màgg ca loolu ñu bari jàpp nañ ne kaaba gi nii rek la toll woon waaye fekk ña xam-xam ne ñu ëppoon na loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ba doon yonent bi dem ba ubbi makka ba del si ànd ak i saxaabaam ànd ne doole jéeg lépp a ngi fi moom dafa wax Aïcha radiallahu taala anha ne ko lawla anna qawmaki xadiisu ahdin bi shirkin a kufrin la hadamtu lkaabata wala jacaltuha ala qawaacidi ibrahim su fekkul woon ne sa nit ñi sa bokk yi maanaam waa màkka ne du dañoo doon ay saabees ci lislaam ci maanaam dañuy door a dugg ci diine ji te soreeguñ ci amaguñ fiq kon li may jëkk a def mooy màbb kaaba gi tabaxaat ko na ko Ibrahima tabaxe woon maanaam mu toll fa mu waaye xam na ne lool su ko defee fitna lay doon ci ñoom fitna lay doon ci ñoom dañ naan kii agsi ñi defee ne aw yiw moo ko tax a jóg mu tàmbalee ci nag toj néegub yàlla la faf su ko defee ay nit mën nañ caa tuddee ay nit ñu ko gëmoon sax mën nañu wëlbatikuwaat jàpp ni kii defar tax koo jóg waaye yàq moo ko tax a jóg kon foofu comparé na alayhi salaatu wasalaam diggante njariñ li ñuy séentu ci yàkkali kaaba gi ak fitna ji nga xam ne ragalees na ko ci ne mën na koo jur mu ne ko sudul woon ak sa gaa yi ne dañoo doon ñu bees ci diine ji day kon li may jëkk def mooy toj kaaba gi delloo ko ca xawaaidi ibrahima yam nekkoon kon loolu mbir la moo xam ne mu doy waar wone na ko eh, ndax boo demee màkka ci ña fa miin wëru kaaba gi tey lañuy tuddee maqaamu Ibrahim dafa daan ne ustaaz Ahmad ci ñiy jiite jaaj yi ci la bokk gis nga wër kaaba gi ni mettee ci boo tolloo ci point boobu ak loolee ñu tudde xijaru Ismail mu wóor la ne yooyu ay mbir la yoo xam ne lu ci nekk wareesoon na ci mën a jël disposition boo xam ne dañ koy defar ndax la ñu tudde maqaamu Ibrahim <coughs> li muy jariñ lenn dong la mooy ñi xam ne nit ki su tawaafee ba àggal war naa julli ñaari rakkaat ci gannaaw béréb boobu kon xeetu màndarga bu nekk war na faa mën a nekk ba mu des loo xam ne dañ ko tabax mu doon ak weñ gu yëkkatiku yor baare ba ñaan ñi sax di ci yóbbaale ay pas-pas yi jàpp ne tànkub Ibrahima daa nekk ci biir fa mu taxawoon te foofu dara nekk fa maanaam dañ ko tabax noonu rafetal ko dong ngir kii julli xam ne ci gannaaw lii lay julli waaye mi ngi gàllankoor ci tawaaf loo xam ne yàlla rek moo xam nu mu demee góor gu ñuy wax Cheikh Mouhamad Hashim al Hadiya rahimahullah mu jiite woon ansaaru sunna ci Soudan daf ne ma depuis jamono bi Malik Abdul Aziz laa tàmbali di leen wax ne leen lii dindi leen ko dindi leen ko parce que mi ngi lor ko jaaji te njariñam xameesu waaye nee na booba ba léegi gisaguma ko am fitu dindi ko nee na ma waxtaan ceeg Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz mu ne ma la taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mënul woon a yokk kaaba gi moo tax maqaam Ibrahima ba léegi kenn mënu ko dindi kon nit ñi buñ ajoo ci dara ba jàpp ne lii nii la léeg-léeg nit ki du ci mën dara da leen di fekk ci loola li feeg du nag loola day jur nag bàkkaar su àggee ci di jur bàkkaar nag su boobaa amatul maslaa waaye day fekk mu doon bokk ci yi nga xam ne lu baax la wala mu doon loo xam ne moo gën su boobaa loola mën na mënees na ko yeexe wala mën naa bañ a am sax te fekk lor ju mag du teg ci kaw jullit yi <coughs> laa yajuusu inkaaru lmunkari bi wasilatin gayri mashrua li nga xam ne dafa doon lu bon mënee suta ñëw di ko soppee leneen lu bon parce que lu bon moom lu bon rek la bii dañ ko war a soppi bi dañ ko war a soppi kon benn bi nga ñëw di ko soppee moroom ji loolu munta nekk li borom bi tabaraka wa taala digle mooy al munkar ci boppam al moo koy soppi maanaam lu baax lañuy ñuy jëfandikoo soppee ko lu bon loolu la borom bi tabaraka wa digle dégg naa ci wax yi ni ñi réer rawatina ci rafida yi ñi ne sëy bi ñuy tuddee al mutaa muy sëy boo xam ne dafa mariage temporaire lañ koy tuddee séy boo xam ne dañ ko wutal temps boo xam ne bu ci àggee foofa la yem mu gudd wala mu gàtt ñoom nee nañ solution la pour xeex njaaloo ñu ne gisuñu ci ndaw ñi lu gën a mën a xeex njaaloo nga daganal leen li ñu tudde almutaa waaw almutaa mooy lan ñu ne mel na ne waa ji génne këram daje jigéen ñoom ñaar ñi waxtaan ba juboo su ndaw si ginnaaw xas na nekk mu kàllaf d'accord na waa ji mën na ko may boppam ñi d'accord ci prix mu daal di ko koy jox ñu daal di ànd sëy en tant que jabar suñ sëyee ba noppi mën na ko daal di fase fi saa si ñu daal di tàggoo dem mën naa génn dajawaat keneen ci bis bi defaat noona mën na koo defaat ba muy ñetti yoon wala ñeenti yoon yàllaa xam waaw loolu bu fekkee moom mooy saafara njaaloo kon njaaloo mooy lan léegi maanaam leneen amul benn différence bu dox diggante njaaloo ak ak ak ak loolu ak moto ànd ak ne moto boo duggee ci biir téere chia ay ba jàng ni ñu koy détaillé dëgg-dëgg sax yow da ngay mujj tiit da nga daan est-ce que lii chia yépp gis nañ ko wala suñ ko gisoon danañ continuer doon liñ doon suñ demee ba mën a jàpp ne jigéen ji nekk ci biiru buum di sëy mën naa def motaa ak geneen góor comme ni nga xam ne góor bu nekk ci këram di sëy mën naa def motaa ak geneen jigéen waaw léegi loolu lan moo des kooku njaaloo day daal dagal kon munkar ci boppam maanaam lu bon di ko jël di ko soppee kon ku jàpp ne lu mel noonu mën na fay jële njaaloo maanaam kon da wax ne njaaloo ba tudd nee moom lañ fa jële indi njaaloo bi tudd nii nga xam ne tur yi ñoo wuute waaye jëf ja moom jenn jaar ñu xam ne mutaa bi nga xam ne moom la si ay di pratiqué tey du mooy mutaa bi daganoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg ñu tere ko wuute nañ lool wuute nañ lool ndax booba la ko doon waral tënk ba ci jëkk mooy ci biir geer lay nekk ñaareel ba mooy fit na nit ñi dañ koy yëg ba ragal tàbbi ci njaaloo ñetteel ba mooy ab sëy lay doon bu ñuy takk boo xam ne du diggante góor gi ak jigéen ci waaye imaam ci boppam wala njiitul jullit yi mooy ñëw teewe ko takk ko sëy mutax ñu takk ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo ko takk yiñ takk ci foo xam ne fekkewu ko kenn ci saxaaba yi moo koy takk kon du sëy boo xam ne diggante góor gi ak jigéen gi kese la kon ñu xam ne euh, loolu euh, noonu la deme léeg-léeg nga dégg ku la ne ndaw ñi ak seeni caaxaan ak yu mel noonu ak yooyu ngir nu mën na fexe ba dox seen diggante ak déglu musique ak way am na lu ñu tudde al anachidul yi ay chanson yoo xam ne ay santé l'islam yoo xam ne day ànd ak musique nag ñu defal leen musique boo xam ne day ànd ak way yoo xam ne wayee l'islam la ñu ne kon suñ dee déglu lii dana leen mën a fekk ba duñ déglu ji li nga xam ne mooy woy ak musique xamal ne bépp woy boo xam ne musique tas na ca dugg misik la moo xam dañ koo jox turu lislaam wala dañ koo jox turu kéefar benn la amul amul différence seen diggante kon lu bon ci boppam deesu ko saafaraa lu bon léeg-léeg nga dégg koo xam ne dane damay dàkk bisu yi nasaraan yi feet feeti ahlul kitaab yi moo xam nasaraan li wala juif yi lañ ne ginnaaw bis boobu ñëpp dañuy génn ànd def nangam su ko defee sama waa kër ma defal leen ñoom itam loo xam ne jubluwuma ci loolu waaye pour téye leen ba duñ dem ca yooya jëndal leen ay cadeau toggal leen nangam defal leen nangam defal leen nangam su boobaa yaa ngi ci biir loola ci jëmmi boppam daanaka moo bàyyi woon leen ñu dem ca loola amul benn différence bu dox seen diggante kon amul benn munkar boo xam ne sharia dana nangu nit ki di ko soppee beneen munkar lu baaxul lu baax moo koy soppi waaye lu baaxul du soppi lu baaxul mi ngi mel ne rek ki nga xam ne dafa takk sobe ñëw jël ndox moo xam ne sobe ci nekk mu ne da koy raxasoo maanaam kookul day dolli ko musiba ndax day ribasoo sobe waaye bu boobaa raxasuwut benn bis benn waaye daa ñëw di naqarlu mu ne dafa am soxna soo xam ne ci ñi faral di waxtaan ci diine la ba nit ñi di jariñu ci moom mu ne euh, dafa am munkar bu muy def ma ne ko lan la mu ne damaa dem këram fekk muy seetaan télévision di xool ay journaliste yoo xam ne dañoo wat seeni sikkim mu toog leen seetaan ma ne ko waaw yow noo noo def ba dem fa mu ne damaa jóg dañ ma ko wax ma jóg spécial pour dem laaye ji ko biir waaye ma bëgg a am lu ma wóor ci loolu ma ne naa ñëw ziyaare si ko pour gis loola nee na ma ñëw maa ngi moom nu bokk toog ci ab saalam ma gisal loolu <coughs> ma gisal loolu sama bopp nee bi ma ko gisee ma laaye ko biir génn bi ma waxee loolu <coughs> ma ne ko li nga def munkar bi nga def moo gën a rëy ba muy def moom benn moo di moom ci biirum néegam la nekk te jamono yi ngay dugg foofa di am si looy wax romb nga munkar yu bare bare bari yoo xam ne ñu ngi ci bitti di gëstu boo xam ne mi ngi ci biir te waxoon nañ ne soppi la ca bitti moo gën a yey ngay gëstu li nekk ci biir ñaareel ba jigéen la joo xam ne ab jaambur la ci yow bokk ngeen toog fe benn béréb boo xam ne yéen ñaar doo nga fa ne te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maxtala rajulun bi imraatin illa kaana cheytaanu thalithahuma amul genn góor guy wéet jigéen fi benn béréb lu dul cheytaane moo leen ñetteel kon yooyu yépp suñ àndandoo yow li nga def yaa gën a mat a laabiire ca kooka kon qaayida boobu dafa doon boo xam ne war nañ koo mën a jariñoo bu baax a baax ci ne li ngay gis mu doon lu bon ba nga di ko soppi xoolal li nga koy soppee faaw mu doon moom <coughs> lu baax su baaxul du mën a soppi loo xam ne lu bon la inkaaru lmunkari la yajuuzu an yatadammana tark almaaruf du dagan nit ki ñëw di soppi lu bon gis lu bon ñëw di ko tere waaye ci biir lu bon loolu muy tere bàyyiwaale lu baax day nekk ci biir léeg-léeg mu dal nit léeg-léeg boo xoolee ñi nga xam ne dañoo teengal ci li ñu tuddee mahabatu rasuli wa saalihin alayhi salaatu wa salaam alayhim ridwanullah léeg-léeg ñii ñëw di leen laaye biir di leen tere lu bon lool parce que teengal ak mbëggeel bu teeng ci doomu aadama ju baax mën naa dem ba indi bokkaale feeñ na ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa feeñ na ci bëgg saalixoon muy nit ñu baax bi léeg-léeg kii ñëw di tere yu mel noonu ci ay waxam wala ay mbindam mën naa dem ba fàtte ñi li nga xam ne ñooñu yeyoo nañ ko ci mbëggeel li nga xam ne yeyoo nañ ko ci mbëggeel su yàggee loolu li muy jur mooy ñii dañoo bañ yonent bi dañoo bañ ñu baax ni lu tax parce que moom saa buñ gisee koo xam ne nee na yonent bi nii la mel ñu ñëw ne la déet loolu ëpp na bul waxati lu mel noonu te ñoom mosuñu leen a dégg ñiy wax ci ngëneeli yonent bi ak melokaanam ak nit ñu baax ni seeni melokaan kon bul fàtte ne tomb boobu jamono yi ngay tere nit ki ëppal ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak nit ñu baax ñi jaadu na nga wax leen ku leen di bëgg noo leen di bëggee kon jaadu na it nga wax leen atte bëgg leen lan la sharia lan la wax ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga yëg ne waajib la ku bëggul yonente bi gëmul kon ahlu sunna ñoo gën a bëgg nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daa war a leer ci bopp yi ñoo gën a bëgg nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën a bëgg sunnaam ñoo ko dàq jàngale ñoo gën a fonk yonente bi gën a xam sax li mu doon dund kon melokaan woowu daa war a fés ci nit ñi ba ko dikkoon bëgg a taxaw fi nit ñi la ñii dañoo bëgg bëgguñu yonente bi kooka moo lay jëkk a wedd nga tax kenn ci eh, ulama salaf day wax ne <coughs> bu ma masaan romb jataay boo xam ne dañ fay jàngale xadiis ak jataay bu ñuy jàngalee leneen maanaam mën naa nekk naxu mën naa doon leneen ndax jotaay yu ci nekk dafa amoon ay xalaqaat yu mag yoo xam ne boo ko rombee boroom xam-xam bi jàngale mbooloo mu toll nii ngay gis moo xam la mu jàngale lu mu mën a doon nee na ni ma leen daan xàmmee jotaayu ñuy jàngale xadiis mooy riir mi nga xam ne julli ci yonent bi da koy riir suñ tuddee aw turam maanaam saa bu ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay dégg mbooloo mi ci jotaay bi seeni kàddu ànd riir kon ahlu sunna ñoo gën a xam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko gën a bëgg itam ñoo dàq julli itam nag ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon wartanikul loolu feeñ léeg-léeg mu dal nit ki ci wàllu rafida chia yeeg seenu bañ saxaaba yeeg yéefarloo gi ñu leen yéefarloo ak zaamu bi ñuy zaamu ne dañoo bëgg ali ibn abi talib ak alul bayt maanaam wax gi ñu wax wu yeey ne dañoo bëgg ali ibn abi talib ak ak alul bayt léeg-léeg tont gi nga leen di tontu ak mer mi ngay àndal ci yéefarloo gi ñu yéefarloo saxaaba yi mën ngaa dem ba fàtte loola ngëneeli ali ibn abi talib ak alul bayt te loolu wari ko fàtte moom itam des ko war a fésal ba ba noppi rek ñu weddi li nga xam ne ñooñu moom la ñuy wax moo tax bokkoon na ci fiqhu salaf al imam an-nasa'i rahimahullahu taala méthode bi mu yoroon da def bu masaan ñëw ci ñoo xam ne chia moo fa gën a bari ngëneeli abou bakar ak omar ak osman lay waxtaane su demee ci ñi nga xam ne dañ leen tudde ay nawaasib nga xam ne fes na ne dañoo bañ Ali ibn Abi Talib nga ne li Ali ibn Abi Talib lay waxaale fi waxtaane fi ñoom ndax xam ne ne loola moom lañ gën a aajowoo kon loolu fiq la am na euh, kenn ci ulama as-salaf mu wax wax joo xam ne ju am solo la nee na euh, kunna ida kunna inda al aamati kunna lil xaakim wa ida kunna inda al xaakimi kunna lil aama léeg-léeg borom xam-xam salaf yi da ngay jàpp ni kii daal euh, ci ulama u sultaan la bokk maanaam moom xaakim bi rek moom daal lu lu buur waxut waxu ko fekk méthode la yor nee na boo xam ne su ñëwee ci nit ñi nga xam ne nit yi neen lañ mooy mbooloo mi gën a bari nga xam ne lu bari ci ñoom seen liggéey mooy critiquer alxaakim maanaam attekat bi njiit li maanaam critiquer njiit mooy seen liggéey nee su ma ñëwee fi ñooñu ngëneeli njiit yi ak la rafet ci doxalinam loolu laa leen di wax waaye nag su ma demee ba toog ak xaakim nag défendre amatu naas mooy doon samay wax bu boobaa du ma wax sama intérêt waaye yi nga xam ne gàttañ lu na ci ak njuumte yi nga xam ne mi ngi koy juum ak musiba yi nga xam ne mi ngi am ci réew mi yooyu laay waxanteeg moom kon soo nekkee ind al amma nee na kunna lil xaakim wa ida kunna ind al xaakim kunna lil amma maanaam fenn fu mu fi nekk ñu nekk ña ca des lay liggéeyal su ko defee ki nekk ci bitti te xamul secret boobu jàpp na ne kii moom défendre xaakim lay liggéeyee fekk bu toogee ak xaakim day mel ni ku toog ak goneem ci yaraange yàlla xam na ne boo jàngoon téere bu ñuy wax kitaabul amwaal li abi yusuf nga xam ne àndandooy al imam abu xanifa la doon dund ci alqarnu saani haarun rachid daf ko digal ne ko damaa bëgg nga taalifal ma benn téere boo xam ne dafa aju ci asiyaasal maaliya wàllu alal nan lañ koy doxale ba mu doon lu jub loo xam ne dana dëppoo ak lislaam te dara du ci yooyu moom téere boobu boo jàngee muqaddima bi <coughs> laa biire gi nga xam ne Abu Yusuf moom la jiital jëmale ko ci Haaruna Rashid ak Haaruna Rashid ki mu doonoon ci kaw suuf xaakim boo xam ne daanaka sooy bëgg ne genn wàllu àdduna gépp ci suufam la nekkoon aw niir da ko daan romb mu ne ko sooy boo nga naaw de foo mën a taw fu ne daal sa impôt dana ñëw fii foo mën a taw fu nekk impôt ba dana ñëw fii maanaam fu béykat ba lu mu sori sori bu fa tawee bu ñoree zakat ba lay wax ne danañ ko indi fii kon kooku lim jiite woon bari na da daan def bu ajee am at ci déwén sa day dem jihaat yi bu déwénee mu ajiwaat bu déwénee mu dem jihaat yi noonu la doon dunde waaye Abu Yusuf na muy waxee moom ci muqaddima téere boobu ñu wax kitaabul amwaal day mel ni koy wax ak gone defal nangam te bul def nangam maa ngi lay dégg nàngam ak nangam na nga wattandiku nangam dégg naa ne def nga nangam nee nañ def nga nangam waaye waxin yoo xam ne boo ko jàngee da nga naan ñii wax dëgg yàlla ay nit lañu yoo xam ne ay rabbaani yoon lañ maanaam borom xam-xam yooyu ku ci toog ak xaakim ba dara desul lu du wax ak moom ci ulama xam ñu yàgg ña la mujj ñi dëgg kese nga koy wax doo ko jey soo wéetee na ca public ba nag ñi bëgg a yàq ab daram nag mu taxaw nag défendre kon melokaan woowu équilibre boobu moom moo war a dox ci diggante euh, boroom xam-xam bi ci buy tere lu baax buy digle lu baax ak buy tere lu bon waaye na wattandiku di <coughs> digle lu baax ba fàtte di tere lu bon ba fàtte ne mi ngi bàyyiwaale lu baax loo xam ne warisu ko bàyyi al inkaaru ala al aalimi laysa kal boroom xam-xam bi nga xam ne danga jàpp ne lim def du noona maanaam munkar la ba nga di ko laaye biir walla nga di ko tere bokkul ak ki nekkul boroom xam-xam nga di ko tere loolu nag ci ñaari bunt la wuute nañ ci ñaari bunt benn bi mooy ki xam ba noppi di tay taylu di def nga xam ne dafa xam ba noppi tay taylu li xam mu teg ca tànkam def leneen kooku buñ koy tere day ànd ak jàjj bokkul ak ki nga xam ne dafa réer di def boo xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci arab yi bi nga xam ne dafa ñëwoon ci jàkka ji fekk nit ñi toog mu ñëw ci biir jàkka ji di saw nit ñi yuuxoo ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bàyyi leen ko mu àggale <coughs> bàyyi leen ko mu àggale ñi bàyyi ko mu faj aajoom ba noppi mu woo nit ne ko demal nga root baagub ndox mu root baag indi mu ne ko demal sotti ko foofa mu sotti ko ca waa ja taxaw di xool kon xam na ne lim def du noonu ndax tuur fa loo xam ne bi mu noppee aajo woon a nit dem rooti dikki sotti ca kon kooku <coughs> loolu bu ëllëgee du ko defaat defe naa ne waaye waxu ko dara bi nit ñi bëggee wax bëgg a yuuxu bëgg a nangam yonent bi la tasrimu bu leen ko lor parce que buñ daggee saw mi kooku mën naa doon lor joo xam ne saw mi des ci biir yaramam mën naa yàq santé ñaareel bi buñ ko yuuxoo mu jóg te saw mi kiwul mën naa tasaaroo ci jàkka ji kuy tuur kuy sotti ndox doo xam foo koy sotti ñu bàyyi ko ba mu saw ko benn béréb ba ba àgg ak ñu ñëw sotti ca ndox kon jëflante naa moom jëflante gu teey gu ànd ak dal goo xam ne waa jooju déggul ci moom benn kàddu boo xam ne bu ñaaw la nga xool Abu Dar bi mu waxee Bilaal kàddu yoo xam ne yu ñagas la ci wàllu yaayam abu dar alxifaari kookee nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asamaan day tiimul suuf itam yanuwul ku gën a dëggu abu dar wala loolu aw tàgg la wax ne jéggi na dayo rëy na teewul bi mu waxee kàddu yu ñaaw en tant ku nekk ci maqaama boobu mu nekk moom abu dar wax bilaal ne ko yabnata sawda yow doomi jigéen ju ñuul ji dëgg la doomi jigéen ju ñuul la waaye fam ko waxe da ciy jublu ñaawal ko la ci jublu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka mru'un fiika jahiliya yow nit nga koo xam ne ak caddoo ngi def ci yow ba tey kon wax ju tar la ju jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa jëm ci Abu Dar lu tax parce que ku xam la arabi bi lu tax mu jëflanteeg moom jëfin mu teeyoo mooy ku réer la xamul kon loolu ma ta la ci ki nga xam ne dafa xam ba noppi def loo xam ne ak jaahiliya la ak ki nga xam ne dafa xamul tàbbi ci dara kon genn wet gi mooy aalim gi nga xam ne dafa xam di tey teylu ka nekk ca maqaamaam wala mu féete ko kaw ba di ko tere am na nu muy teree na mu koy teree noo xam ne moo gën a tar na muy teree ki nga xam ne agul foofu ànd ak ne aalim nag aalim mooy in moo koy inkaar maanaam boroom xam-xam boroom xam-xam moo koy digal moo koy tere ku boroom borom xam-xam nag mën na ko laaya biir ba tey mën na nekk beneen tomb bi leen wuutale moo di ki nekk borom xam-xam nga gis mu def loo xam ne jàpp nga ne njuumte la bala ngaa ñëw ne ko juum nga ci nàngam ajana teey ajana gëstu ndax kat léeg-léeg nga jàpp ne yow lii nga gis njuumte la borom xam-xam ba di ko def waaye boo ñëwoon laaj ko bala la waxee àtte ba da nga ne ah man kat kon ndekete xamewuma ko noonu kon ndekete taxyirul munkar bu mu mën a doon li war a jiitu même bu dul woon aalim bi sax li war a jiitu mooy at taakkut min kawnihi munkaran maanaam faw mu wóor la ne lii munkar la ba noppi ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne man raa minkum munkaran ku gis loo xam ne lu baaxut la benn waay nee na benn bis damaa yor ab muxtaaru sixaax du ñàkk ci yéen ñu ko xam ab dictionnaire la boo xam ne ci arabe la dañ ko móol móol bu rafet nag mu mel ne ab nee ma teg ko di julli sëlmal rek benn waay ñëw ne ma salaamaaleykum aleykum salaam nee mu tàmbali di ma laa biire alquranul karim téere la bu tedd yàlla ko wàcce moo def nii nangam kenn waru koo jël teg ko ci suuf di julli nee ma déglu ko mu wax a wax a wax ba àggal nee ma ubbi ko ne ko lii de muxtaaru sixaar te mu daal di jeexal tàkk kon bala ngaa inkaar ak di ca sonn na gëstu ba mu wóor la ne lii ngay bëgg a inkaar munkar la rawatina nga ñëw di di ko laaye biir wala ngay dal ci kawam boroom xam-xam la déglu ko wala nga laaj ko ci anamuk laaj ak tontu ba xam lii lu tax mu def ko ak lii mu wax lu tax mu wax ko su fekkee dafa juumoon mu ne ah man li nga ma wax yëgu moo ne defoon naa kon damaa juum jazakallahu xayran su fekkee nag boroom xam-xam la moo tax may wax su fekkee dafa am dalil boo xam ne xamoo ko yow mu jàngal la ne la lii kët nangam ak nangam ak nangam mooy dalil la qaida boobu day wax ne al inkaaru ala al aalimi laysa kal inkaari ala ba ca tegu laa inkaara fi masail al xilaaf boobu li muy firi mooy masale yi nga xam ne masale xilaaf la doo ñëw inkaar ci ne nit ki ci ay neen nga nekk bàyyi li nga nekk loolu nag mu doon lu aaja leeral buñ ne masailul inkaar masailul xilaaf mooy yan mooy al masailul ijtihaadiyatu al masala yi nga xam ne dalil bu leer nañ ñi dikku ca nga xam ne boroom xam-xam yi ijtihaad nañ ci juyoo ci kenn ku nekk jàpp ne yow ci alxuraan ak sunna nga jàpp kay jàpp ne ci alxuraan ak sunna la jàpp ñi juyoo ca masala booba yooyu masala ku ca jël benn nitam doo ñëw ca kaja des ne ko ci ay neen nga nekk inkaar ko ne ko danga ko war a bàyyi ne ko dama lay tere lu bon maanaam su boobaa du dugg foofu waaye nag léeg-léeg nit ñi dañuy ñaawal dégg bi defe ne lépp loo xam ne nit ñi juyoo nañ ca rek ci masaa'ilu xilaaf la dugg yoo xam ne kenn waru caa inkaar déedéet léeg-léeg nga gis koo xam ne bu nekkee ci biir julli du yëkkati ay loxoom bu kàbbaree kàbbaru armal sax am na ñoo xam ne bu ñu duggee ci kàbbaru armal dañu yëkkati seen loxo dañu dugg rek ne allahu akbar comme ñi ñuy tudde al bu ñu kàbbar kàbbaru armal du sax duñu yëkkat seeni loxo bi mu taxawee ci julli gi di jublu xibla ak ba mu duggee ci julli gi gisoo lenn lu koy xàmmee yow miy xool day jékki-jékki dañ ne allahu akbar gis ñoo xam ne duñ yëkkati seeni loxo ci béréb yi nga xam ne fa lañ ko war a yëkkatee muy lu mel ne rukkoo jóge ci rukkoo <laughs> ak yu ko nuru wala du wax amin wala bu ko dee wax du ko wax ca kaw yooyu masala léeg-léeg nga wax ci nit ne ko masala bi nangam nangam mu ne la masala bi kat dañ cey juyoo loolu njuumte la kenn waru koo wax foofu ndax bépp masala boo xam ne dafa sax <coughs> dalil bu wér daf caa ñëw dalil bu wér daf caa ñëw bu sax donte borom xam-xam yi juyoo nañ ca ka wax safaanub dalil ba kooku dañ koy inkaar maanaam danañ ko tere lu bon lool yi ndax li mu def lu bon la mooy dafa jàpp ci masala boo xam ne masala bu amul dalil la su boobaa kooku des na ko laa biire su ma la doon jox misaal ci fi nga xam ne mooy misaalu qaida bii muy laa inkaara fi masail al xilaaf boo ñëwee ci aj ustaz ahmad am na tamatto am na alqiraan am na al ifraad ñetti xeeti ajiin yoo xam ne ajiin bu ci nekk ay boroomi xam-xam jàpp na ca tegtaloo it ay dalil foofu ki fi gis ne bii aj moo gën kee gis ne bee moo gën kii gis ne bii moo gën foofu dañuy wax ne la a fi masail alxilaaf foofu bul ñëw mukk ci kii def tamatoo fekk ifraat nga gis ne moo gën a dëgër nga ne ko sag aj baaxut da war a ajaat ka ca def itam noonu su la wóoree nag ni gii moo gën a dëgër man ngaa jéem a lu leeral jubbanti jéem a convaincre keneen pour mu jàpp ne aj gii nga gis ne moo gën moo gën waaye su dut loolu foofu moom inkaar amul jàppal ci li nga jàpp mu jàpp ci li nga jàpp beneen misaal boo xam ne safaan bala mooy li ñu tudde al qabd wal irsaal mooy wadaul yumna ala al yusra di julli jël sa loxo teg ndeyjoor teg ci bu càmmoñ bi teg ci sa dënn léeg-léeg nga wax nit mu ne la ah loolu kat borom xam-xam yi dañ cey juyoo kon bu la ci neex rek da tànn loolu déggin wu ñaaw la kooku safaanu déggin wi nga war a dégg la moo di ne julli teg sa loxo ndeyjoor ci sa loxo càmmoñ boole leen teg ci sa dënn moom dong moo sax jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te dafa sax saxiin woo xam ne dafa nekk sariix leer nañ ñi ci ay xadis yu wér yoo xam ne sikki sàkk amu ci kon ki juyoog loola moo nekkut ci yoon kooka dañ koy laabiire ndax mu ñëw ci li nekk yoon waaye foofu bul ma wax mukk ne ma masala xilaafiya la maanaam masala boo xam ne borom xam-xam yi juyoo nañ ci am na ñoo xam ne jàpp nañ diini yépp tànn sa bu la neex la ndax masala boo dugg mu ne ba gis ne ñaari wax am na ca rek su boobaa tànnal bu la neex loolu ku déggee noonu ci diine li lay xaar wala iyaasu billaahi mën ngaa dem ba dugg ci li ñu tudde zandaxa sax te doo ko yëg mooy dem ba génn diine te doo yëg ni génn nga diine ndax mën ngaa tànn fenn fu ne la fa yées boo noppee ba dajale ko la ngay génne yor ko mu sa di muy sa diine yow ku ko xool ku nekk kenn du xam lu mu doon ci àdduna kon loolu lu mat lu mat a bàyyi xel la léeg-léeg nag nga gis ku ne ah masala bi kat leer na ci borom xam-xam yu mag yi dañ cee wax kon manis na ko jàppe masala xilaaf yi ñu ne dëgg la doonte borom xam-xam yu mag yi wax nañ ci itam borom xam yu mag yi dañuy juum ndax su fekkee bu borom xam-xam yi juumee ñi ànd ak ñoom ca loola bu yàggee dëgg ci boppam kenn dootu ko xam day raaf moo tax njuumteel boroom xam-xam du dañuy leeral ne loola njuumte kon masala boobu misaal la ci googu wet am na ay benn benn masala defe naa waxtu yi tey am na masala yoo xam ne moom la ñuy mujjee li si jëkk moo di ne al amru bil maaruf wa nahi an munkar min furudi al kifayat digle lu baax ak tere lu bon li ñuy tudde fardu kifaaya la fardu kifaaya mooy loo xam ne bu amee ku ko def wala ñu ko def ña def seen jaan wàcc na maanaam yóbbaale nañ leen borom bi tabaraka wa taala daf ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa ulaika humul muflixuun na am ci yéen na am ci yéen ñoo xam ne dañuy digle lu baax di tere lu baax kon loolu dalay won ne du ñépp a am kàttan boobu ak man-man boobu waaye kenn ku ci nekk <coughs> fa ci sa kàttan toll kooku nga ci toll am na ci ñoo xam ne mënuñu ci dara ci boobu bunt ñoo xam ne dañ leen di digal di leen tere waaye ñoom mënuñoo digle mënuñoo tere kon xeet woowu nga xam ne ñooy def loolu ñooy digle lu baax di tere lu bon mooy ñi nga xam ne xam nañ su ko defee nag maraaxil yañ koy defee ñoom danañ ko xam kenn ku ci ne fa ca sa doole toll ki nga xam ne mën naa <coughs> soppi mun karam ak loxo mën naa dindi lu bon ak loxoom kooka loxo bi mooy jaadu bu boobaa tële na ca loxo ba làmmiñ waa fa sës tële na ca làmmiñ wa étape ba ci gën a suufe moo ca sës ibnu taymiya rahimahullah day wax fii wax ju am solo neena buntu buntub digle lu baax ak tere lu bon ñaari kuréel dañ cee réer ñaari kuréel <coughs> toujours masalay diin ñi nga xam ne dañoo ëppal ak ñi yées toujours dañuy réer ci masala yooyu am na ñoo xam ne dañoo jàng wax suñu borom tabaraka wa taala nee na yaa ayuha alladina amanu alaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum nee na aaya boobu ñaari kuréel dañ cee réer borom bi day wax ne na ngeen ittewoo seen bopp na ngeen ittewoo kenn ku nekk sa bopp kuréer nag kuréer loola du leen lor yéen ibnu taymiya ne ñaari kuréel dañ cee réer benn bi mooy bi nga xam ne daa jàpp ne kon nit ki warta digle warta tere rek boppam rek ngoo ko war a itteel waaye daa war a bàyyi nit ñi ku cay yaa xam sa bopp nee loolu aw déggin la woo xam ne njuumte la moo tax Abu Bakr as-Siddiq radiallahu taala anhu daf doon wax ne innakum taqra'uuna hadihi al aaya wa innakum tada'uunaha fi gayri mawdi'iha yéen day di jàng laay ji waaye fi ngeen koy teg bokkut ak palaasam wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul inna an-nasa idha ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahum Allah bi'iqabin minhu nee na man Abu Bakr maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ñi suñ gisee lu bon te soppi wuñ ko ñooñu yàlla mën naa indi mbugal moo xam ne bu ñëwee kenn du mucc wal iyaasu billah ibnu taymiya mu ne beneen kuréel ba mooy kuréel bi nga xam ne dafa jàpp ne moom daa war a soppi munkar tey ak loxoom ak lu mën a xew kon ak kuréel a ngële boo xam ne dane du ma digle duma ma soppi ndax yàlla nee na ne kenn ku nekk dem ci sa bopp bii kuréel nee na fu mu gis munkar da koo war a dindi ak loxoom nee na min geyri fiqhin fiqhin wala xilmin wala sabrin wala nazar nee na ñooñu duñ ci boole ak dégg muy fiq duñ ci boole lewetaay duñ ca boole muñ duñ ca boole sax an nazar fi ma yasluxu min dalika wa ma la yaslux duñ xool la baax ak la baaxut ñoom daal mun kare ngi faaw ñu dindee ko ak seen loxo mu teg ci ne xadiisu abu saalabata alxushani nee na saaltu anha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam laaj na ko laay ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ko tontu mu ne ko bali tamiru bilmaarufi wa tanahaw an ilmunkar mu ne ko na ngeen di diglante lu baax di terente lu bon xatta ida raayta shoxan mutaan li feeg demoo ba gis ne nit ña seenu nay jéggi na dayo nit ña topp nañ seeni bànneex nit ña bàkkaara leen gën a ludul moom kenn ku nekk sa xalaatu bopp doy na la nga gis mbir moo xam ne mënoo ca dara nee su boobaa fa alayka bi nafsika su boobaa nee na dellul ci sa bopp nag maanaam su la wóoree ne digle bi ak tere gi amatul njariñ nee na foofa ngay sañ a delloo ci sa bopp wa daanka amra al awaam mu ne ko bu boobaa bàyyil nit ña ak seen bopp fa inna min waraikum ayaaman alsabru fihinna mislu alqabdi ala mu ne ay bisa ngi ñëw ca ci topp yàlla ak def liñ la digal nee na day mel ne ngëpp aw xaw nee na ñooñu amul fiq te fas yéene soppi munkar tey ci seen loxo nee na kenn ci ñoom day ñëw jàpp ne day topp yàlla fekk ndekete ci mooy yàlla la nekk ci yëgu ko nee na lu bari ci waa biddaa yi muy xawaarij yi ak mu'tazila yi ak rafida yi jàpp nañ ne digle lu baax ak tere lu bon boppam mooy nga ñëw xeex yor sa jaasi xeex ak ki nga xam ne mooy alxaakim maanaam àttekat bi nga ne tey ma jële ko fi jël sa ngànnaay xeex ak moom ba daaneel ko dafa nañ ne loolu mooy digle lu baax ak tere lu bon nee na su ko defee amuloo kàttanug loola mën nañ la caa faagaagale faagaagale ca daawa ba lépp yàqu nee na loolu ñàkk xam li jaadu ci bunt boobu loolu lay jur kooku masala bu am solo beneen masala bi ñuy mujjee moo di ne noo ngi dund ci jamono joo xam ne laaj na julli yi delluwaat ci seen bopp delluwaat ci alquran dellu ci sunna xam ne borom bi tabaraka wa taala li jullit yi néew néew doole tey li ñuy doye di doye di tey moom mi dimbali woon julliti démb ya moo mën a dimbali julliti tey yi su fekkee dellu nañ ca la julliti démb ya nekkoon wala yansuranna allahu man yansuru inna allaha la qawiyun aziz yàlla ku ko jàppal mu dimbali la ndax yàlla ku am kàttan la alladina déglu lim ci teg in makkannahum fi l ardi aqaamu salata wa aatawu zakata wa amaru bilmaaruf wa nahaw an ilmunkar wa lillahi aqibatu l umur suñu borom tabaraka wa taala nee na ñi muy jàpp ndalal bu boobaa ci turu diine mooy ñi nga xam ne saa buñ toogee fii maanaam saa bu leen yàlla joxe kàttan su leen joxe pouvoir ci kat ci misaal dañuy taxawal julli dañuy taxawal asaka danañ digle lu baax danañ tere lu bon kon ndimbalal sunu borom tabaraka wa taala ka ko yeewu mooy kuy digle lu baax di tere lu bon te léeg-léeg jullit bi day day tiit ci riir goo xam ne doomu aadama yi riir nañ ko jëm ci pouvoir nit ñi tey jaawale nañ diine ak ak ak am na ñu bari ñoo xam ne fañ toog terenke laayu jàpp nañ ne li feeg jëmuñu ba àgg ci ñu ne la yaa yor nguur gi tey wala yaa fa ëpp doole dafa nii ne doo mën a soppi dara ci munkar te fekk mbir ma musta mën a demee noonu te nag ñu bari tey àgg nañ ci pouvoir tey ci kaw suuf te taxul ñu soppi dara nag ci munkar léegi yokkuwut sax te loolu day tiitloo nit ki ndax suñu borom tabaraka wa taala daf ne bi mu waxee aaya jooju ba àggal nee na asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastaxlifakum fi l ardi fa yandura kayfa taamaluun kooku lu lu rëy la loo xam ne ñi yàlla di jox kattanu mën a soppi dara tey ci lu bon te soppiwuñ ko war nañ ko bàyyi xel nee na yàlla moom moo leen di indi ci kaw pouvoir teg leen fa bu laajee sax ne day alag sa noon ba jiitu woon mu alag ko moo xam alag bi alagu sànni ca àll ba lay doon wala rey ko lay doon wala nu mu mën a demee waaye mu jële ko fa ba noppi indi la fa yow waaye nee na fa yam dura kay fa taamaloon su noppee nag day xool lan ngay def kon responsable bi ca këram ca direction am ca kaw ngóor ga moo xam ab ministère la wala ba ci njiit la na xool ne am na ku ko bind koo xam ne moo ko jox responsabilité boobu koo xam ne fa yandura kayfa taamaloon mi ngi ci kanamam muy xool ba xam fii mu leen jox ak jàppandal yi mu teg ci sa loxo lan nga ci nar a def kon xool boobu lu mat a bàyyi la summa xalaa xalaa'ifa fi l ardi min bacdihim fa yandura kayfa taamaluun wuutal na leen gannaaw boo xamee ne jëlee na fi ñeneen ñëw leen teg teg leen ci place boobu yéen ngeen war fee nekk ba ab diir waaye nag mi ngi xool ba xam lan ngeen fii def kon kenn ku nekk sa responsabilité ñu ngi lay xool ci ñaari anam lan nga fi nar a def ci loo xam ne dana jariñ saw xeet lan nga fi nara def ci loo xam ne boo wuyoo sa borom dana nekk aw lay kon ñaar yooyu kenn ku nekk war nga koo xool bu dee boroom xam-xam bi war naa xool xam-xamam bi lan la ci def loo xam ne nit ñi mën nañ koy jariñ ci tasaare ko jàngale ko ak xamle ko waaye ci wàllu sellal bu dajee digganteem ak boroomam lan la ci def fa yanzura kayfa taamaluun bu dee ki nekk ci direction wala ministère am wala lu mel noonu ndax xool lii muy liggéey lan mooy jariñ aw askanam ak bu ëllëgee bu dajee ak boroomam lam doon def ka jiite itam noonu rek la mbiram fa yandura kayfa taamaloon mi ngi ci kanam ñëpp allahuma ansur alislaam walmuslimin wa adil alshirka walmushrikin wa makkin ahla taatika fi lard wa waffiqhum lilamri bilmaaruf wannahyi an almunkar ala alwajhi alladi yurdik wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain الحمد لله رب العالمين جزا الله شيخنا خير الجزاء جزا الله سبحانه وتعالى moom ñu defal tawfiq ba ñu dégg fi jëriñ yi ñu fi jëriñoo ñi ñaan borom bi subhanahu wa taala lépp loo xamante ne dégg dañ ko fi tamit njëriñ am nañu borom bi subhanahu wa taala defal léegi ak toog te nanguñu suñuy jaam yàlla kon duñ def lu dul dugg ci ñaareelu xaaju liggéey bi mooy jël yenn ci laaj yi nga xamante ne jot na fee rot buñ ci noppee ñu daal di libéré mu daal di dem ci yenn yitte ñu yëgal mbokk yi rek ne loolu dañ ko dem dañ ci jël trente insha allah buñ ca noppee ñu dugg ci yeneen activité waaye balaa ñoo jox euh, Sall Ahmed Diop mu jàllale ñu question yi mu jot dafa am question boo xamante ne kilifa yi nga xamante ne ñoo jiite coordination bi dañu ko jottali woon mu nekk wax joo xamante ne dégg nañ ko benn yoon ba ñaari yoon ñu ragal mu def jax-jaxal ci xolu ñenn ñi moo taxaw ñu ne nañ ko indi fii daal di koy laajte bu ko defee ñun ñëpp ñu déggandoo am ci tontu bu leer daal ci jëriñu mooy lan mooy liggéey bu mel nii sikki sàkka amul ne xaalis lu bëri la laaj sikki sàkka amul ne lim laaj ci investissement ci wàllu xaalis ak ci wàllu ci wàllu euh, investissement humain lu bëri la te ñu ngi dund jamono joo xamante ne wax dëgg yàlla yeneen i aajoom am ñenn ci mbokk yi ñu ñu waxoon ni est-ce que doonul woon gën lañuy dajale di ko def ci benn bés ñu dajale woon ko jëm ko dugal ci beneen occasion boo xamante ni moo gën a moo ko gën a laaj wala moo ko gën a aajoo loolu nag kilifa yi neewoon nañ ko jàllale bu ko defee ñu xool lan lañ ci cheikhu naa di laaye biir bu ko defee ñun ñëpp ñu déggandoor ko daal di koy jëriñoo insha allah lu mel ni ay cas sociaux yi ñuy gis léegi-léeg ay mbokk yu feebar wala yu demee ni ki noonu wala léegi-léeg jàppalee ko yenn ci daara yi nga xamante ne ñu ngi jàng alquran léegi-léeg tabax yenn ci jàkkaar ay hôpitaux wala yu demee ni ki noonu yooyu daal la mbokk yi doon wax ne jàpp nañ ne moo gën a moo gën a yey ci ñu jël xaalis bi def ko foofu gënoon ñu koy def ci benn journée boo xam ne dañ ko cay taal buñ par rapport ak euh, temps bi ñu ngi ci su ko defee dañuy jéem a tànn yi nga xam ne ñoo gën a jege mawdu waaw bisimilah. ñu déggul seen question yëpp ñu jéggal ñu xam ne léeg-léeg soriwaay bi la ak question yi li mu bari am ci question yoo xam ne daf ñuy toxal jëmale ñu feneen lu mel ni kii laaj ban période la nit ki di seeg euh, soxnaam am doom ak période boo xam ne du am doom yaakaar kooku dañuy toxal jëmale ñu ci jotaay faj su ko defee question bu njëkk bi mooy euh, ndax bokk na ci yoonu borom xam-xam yi ñuy topp masala xilaafiya masala boo xam ne dafa am wuute di ko leeral maanaam fekk jubluwuñ ci tarjiix ndax dina am lu tax boroom xam-xam di wax ci masala boo xam ne wuute la ndax ña toogal ña ca wuute wala benn kuréel ga mu toogal muy leeni leeral masala bi ne masala xilaaf ya di indi adilla ñi wuute fekk jubluwaayam nekkul tarjiix ndax loolu bokk na ci yoonu euh, boroom xam-xam yi ci ay yenn xaal damay yem rek ba taxaw buñ def ba juróom waaw ñaareel bi kii dafay laajte nee na kër gi mu dëkk borom kër gi dafay def ko ne bunt bi mënul tëjee ko ci tëjee ci ci ginnaaw ci biir kër gi rek la mën a tëjoo la mu ci jublu nee na mooy pour ne mënul dem julli ji fajar ndax waxtu woowu kenn bàyyi bunt bi tëjuwul kooku nan lay def te dafa luye beneen bi kii nee na moom day liggéey ci benn société boo xam ne dañuy defar ay code ay carte yoo xam ne am ay code yu ñuy defaral banque yi ay carte crédit ak yu demee noona ak i carte masalan PMU nee na moom nag du lu dul koo xam ne moom euh, opérateur la buy conduire machine bi nga xam ne moom mooy defar carte yi nee moom loolu la ci nee na ndax mën naa continuer liggéey foofu am déet kii moom nee na dafa takk ñaareelu soxna nee bi mu ko takkee ñaareelu soxna ba bokk na ci la mu ko jëkk a laaj ndax di takk ñetteel nee na mu ne ko mukk du ma takk ñetteel abadan nee ñu demaat ba ab diir nee na soxna sa laajati ko nee na mu ne ko mukk abadan ñu ne waaye fi ñu toll nii nag moom dafa yëg aajo ci takk ñetteelu soxna nee na bi ma ko waxee soxna si soxna si daanaka taxawaay ku bëgg a xarab la taxaw nee nag loolu lan moo cay àtte lislaam bi kii dafay laajte ne ki nga xam ne dafa wax moroomam ne ko damal daan gis ngay yëkkati sa yére ba ca nisf saax bi ci digg yeel bi léegi nag damay gis ne da koy wàccee ba mu weesu foofu moroom bi laaj ko ndax damay isbaal mu ne ko déedéet isbaalu loolu mu ne ko waaye man boo gisee ma def ko dafa am béréb yi may dugg te di fa taxawal lislaam yoo xam ne su ma feeñalee leen ne ni wala ma def ko mën naa faa am ay jafe-jafe ci liggéey ba ma tànn lu gën a rëy ëpp yool mooy taxawu lislaam ci béréb yooyee mu gën a tasaaroo ci ay masala yu gën a rëy que sunnaay rek eggale ko ci digg ba ca du ma egg ci lu xaraam bal sax maa ngi des ba léegi ci sunnaay digg yeel ba ba ca dojoor ba kooku ne ko saxaaba yépp euh, maanaam euh, li saxaaba yi daan def mooy gën mu ne ko ban preuve nga am ci ne saxaaba yi dañu doon yéegal seen yére ñoom ñépp ci digg yeel ba li ñu maye kenn daawu ci jël mu ne ndax loolu moo gën te saxaaba yi daaw ñu bàyyi li gën wax na ne lii saxaaba yi daan nañ ko def wala daawuñu ko def wala lii bokk na ci manhaju ahlu sunna wala bokkul ci manhaju ahlu sunna ndax nit rek am ndongo daara sañ na di ko wax te fekk ne du ak toxal maanaam du ne ndax diw wax na ca usulu sunna nangam wala diw wax na ca téeréem ba nga xam ne nangam maanaam moom góorgóorlukat bi rek xërkat bi di wax ne li saxaaba yi def te amul istiqra wala borom xam-xam yi bokkul ci manhaji ahlu sunna ci mbooloo moo xam ne dafa mel nii ndax lii ñuy def nii moo a li ñuy ko lii ñu jëme woon ko ci yeneen bunt yiw yoo xam ne nit ñi dañ ci jëriñu ci geneen anam def naa loolu mooy laaj alhamdulilah li ñuy jëkke mooy rafetlu liggéeyu mbooloo boo xam ne dafa jóg te fekk dafa tegu ci ak taawun ala al birri wa taqwa fekk dimbalante ci lu baax moo ko yëkkati al birr wa taqwa doon ay ay bunt maanaam bunti birr ci boppam dafa yaatu yaatu goo xam ne nit ki mënta def yépp waaye dama jàpp ne ak jamono lum naqari naqari ak lu metti metti bépp liggéey boo xam ne mbooloo moo ko séq mu nosewu mën nañoo def lu bari laaj na nag ay sacrifice maanaam tadxiya laaj na ko ci alal laaj na ko ci waxtu defe naa ne li ngeen di am néewoo bari jaadu na am kees goo xam ne kees gu sax la goo xam ne su ngeen cay def defu leen ko rek pour journée benn benn journée moo tax ci at mi waaye da ngeen koy def ngir ne yéen mbooloo ngeen moo xam ne da ngeen a war a am budget boo xam ne seeni itte dafa war di dox ci loolu su ko defee kees googu bu demee ba taxaw ba sax ba am lu bari mën na leen koo jariñ wàllu formation ci seen biir yéen war ngeen ko mën a am boo xam ne euh, formation dafa am ay bunt yu bare bari yoo xam ne léeg-léeg ndaw ñi ñu koy sàggane te fekk yu rëy la maanaam lu tuuti du doon lu tuuti man su ma ñëwee ci mbooloo mu mën a doon nan laay xame ne organisé wu nañ dëgg-dëgg ak nan laay xame ne am nañ formation bu wér nee ngeen ma conférence bi dix heures lay tàmbali agsi naa dix heures su ma doon xool mbooloo mi niñ toll nii ñaata ci sentence laa fi fekk lu néew laa fi fekk bu ma ko bu ma ko comparé ak li teew fii mu nekk nga xam ne kon ñu bari dañoo ñëw gannaaw boo xam ne waxtu woowu ñu waxoon weesu na te ñoom li ma jàpp mooy ci seeni réunion ñoom ñoo réunion ba ne bis sàngam ci la wax heure sàngam ci la suñu programme di tàmbali du ñàkk ay benn ñaar ñett ñeent juróom yoo xam ne mën nañoo bañoon a xam kañ lay tàmbali waaye nag wërta mën a baree ni ñi nga xam ne dañoo ñëw gannaaw bi kon loolu ay kaddu la yoo xam ne dama ko borxalaale ci biir loolu pour ngeen xam ne formation ci boppam dafa war a dem ba day àgg ci nit ki engagement bi muy jël ci liggéeyu lislaam bi day toll ne engagement ba mu jël ci fa muy liggéeyee maanaam wala buy tukki boo fi jegoon tey ñi ne dañoo réserver avion ñi ne la léegi am na heure boo xam ne bu jotee boo dikkul fekk day fekk avion bi dem lu ëpp ci nit ñi heure boobu bu desee ñetti waxtu la ñuy ñëw lu tax parce que bëgguñu tukki bi bàyyi leen yëg-yëg boobu li fekk gémmunu ba am ko ci liggéeyu lislaam bi ba waxtu wun joxe bu jotee bu ku dikk fekk na fa lu dul ngànt lu rëy moonu gàllankoor li fekk àggunu foofu kon aajo nañ formation ci boobu bunt kooku ne benn bunt ci bunt yi buntub joxe dañ fee aajowu formation muy liggéeykati lislaam yi rawatina liggéeykati sunna yi buntu joxe ñeneen ñee leen ci mën ci bunt boobu muy lu wér nag ñeneen ñi ñoo leen man ci googu wet moo xam ne lu tax ñuy joxe dëgg la kay joxe moom amaana yàllaa ko tax di joxe waaye mën naa joxe ci foo xam ne day wóor ne du yàlla waaye nag mu fay joxe lu bari nag kon ahlu sunna ci boppam laaj ne tàggat seen bopp benn ci liggéey ndax ñu mën a am lu ñuy joxe liggéey nga doon wu sel woo xam ne dañ ci jàngalaale nit ñi nan la ñuy liggéey liggéey bu sel suñu liggéeyee ba am ñuy def fi sabilillahi itam doomu aadama mën cee jëriñ kon jàpp naa ne su ne organisé wu ngeen ba am kees boo xam ne kees bu duun la alal ju bari nekk ca yii ñuy wax yépp mën naa bokk seen programme ngeen di ko def mën ngeen a tabax ay jàkk mën ngeen a gasi teen mën ngeen a ubbi ay orphelinat di taxawul ay jirim mën ngeen a fayal ay nit ñu mënta jàng ngeen fayal leen seenum njàng mën ngeen a taxawal ay conférence mën ngeen a def ay formation lépp bépp liggéeyu l'islam bu ngeen bëgg bu nekk ku dikk dañ leen fekk ngeen di nekk ca loola parce que danoo nekk ci jamono joo xam ne jamono alal la ku dajalewul alal ngir def ko ci fi sabilillahi lu bare bari ci yooyu da nga ci mën a am gàllankoor mu des yooyu yépp su fekkee li nga am yow lenn la mën a def lan mooy li gën a ñëw loolu xëy na du question boo xam ne nit ki da ciy fatwa mu daal di ne ñi ne ah kon kat lii moom mooy farata ji nanuy def conférence bi bàyyi lële wala nanuy def lële bàyyi lii waaye nattam li wu ma seen bureau yi liggéey ñoom ci seen jëmmi bopp ay xalaatkat a ngi ci seen biir ay boroom xam-xam itam mi ngi ci seen biir ay mag ñu ngi ci seen biir itam ñu am expérience saa bu ngeen demee ba toll ci ne am na luñ bëgg a def yéen réunion xool lan moo gën a ñor ci fi nu toll loo xam ne wóor nañu ne liggéeyum lislaam ak liggéeyu mbooloo mi moom la aajoo fi mu nekk loolu su ngeen réunion ba dëppoo ci ne nangam mooy li gën a ñor ci seen ijtihaad su booba kenn di ñëw ne loolu gën te ñor kenn di ñëw itam ne la baaxul ndax lépp ci maaruuf la maanaam bunti yiw la dadi nag bunt yiw benn bu ci ne day am jamono joo xam ne fii moo fi gën ànd ak ne lu baax la waaye lii fii moo fi gën leneen mën naa doon lu baax lislaam noonu la tërale mbir yi jamono yi imaam di xutba kenn ku ne xam ne ni jàng alxuraan baax na waaye foofu dañ la koy tere ndax foofu du palaasam kon mbir yi dafa am ay awlawiyaat place bu nekk am na foo xam ne loolu amaana conférence bi fi ngeen koy defee amaana moo fi gën su ngeen jekki woon jekki ne dañuy tabax jàkka jël la ngeen am def ko ci jàkka ja taxaw loo xam ne dana mat ab diir bu yàgg alal ja dem na te kenn julliwu fa ndax jàkka ja àggut kon loolu gàllankoor daal lay judd foofu ànd ak ne ndaje mi ngeen daje ay kàddu mën na fay jibe nit jariñoo fi loo xam ne sax mën naa jariñ kees gi sax foofu waxuma jariñ jariñ jariñ liggéeyub lislaam beeg xam-xam beeg dolli ko mën waaye kees gi sax mën na ci jariñu far kon ndaje mi ci boppam am na lu muy dundal loo xam ne leneen mënu koo def maanaam su ngeen àndoon yéen ñëpp tabax jàkka it alhamdulilah da ngeen am tuyaaba yéen ñëpp insha allah waaye nag ñëpp bokk daje ñu xam ne nun noo ngi nii nii lan toll am na lun def loo xam ne nun ñëpp noo ko bokk bésub tey bii mooy ànd bokk dund ba ngoon bokk déglu lenn ci xam bokk gisante bokk añ bokk waxtaan bokk tàqalikoo ci jàmm ba déwénati defe naa ne benn yoon ci ci ci ci at mi ci lu mel noonu jàpp naa ne loolu lu ñor la programme beneen bu ngeen doon defit boobu ngeen boole ko ci defe naa ne lu baax a baax la teewul nag su ngeen demee ba gis ne am na leneen lu gën a ñor lii su ngeen koy def kenn du la wax ne lislaam waxut loolu ok kay jamono ji nekk am na loo mën a def kon wujuhul birri mutaaddida euh, ki nga xam ne dafa ñëw di leeral masalam xilaaf masala yoo xam ne borom xam-xam yi dañ cee juyoo waaye jubluwu ci pour tarjix maanaam pour wax ne lii moo gën a dëgër ak lii moo gën a woyof waaye dafa ñëw rek di di di màng rek di wax juyoo yi ci am ndax loolu jaadu na wala jaaduwut léeg-léeg nag du jaadu ndax boroom xam-xam yi daf la am lu ñu daan tudde fiqhul xilaaf fiqhul xilaaf bokk na ci ay buntam moo di <laughs> kii taxaw ci kanam nit ñi di leen wax juyoo gi lan la jublu ndax dafa jublu leeral dëgg ba nit ñi mën koo jël jël la nekk raajix bàyyi la nekk marjuux maanaam li gën a dëgër ñu jël ko te bàyyi la gën a woyof su fekkee loolu moo tax muy wax xilaaf te xam naa li muy wax kooku lu baax la su fekkee nag la mu jublu mooy moom masala bi moom ci boppam sax maîtrise ko maanaam gis na rek waxi borom xam-xam yi kii nee na lii kii nee na lii kii nee na lii waaye xamut ban moo ci gën a dëgër kooku du jaadu ci moom muy jaxase nit yi parce que kat ku xamul dara ci diine xamut lan mooy xilaaf nga ñëw toog ne ko bi masala lii la ci Maalik wax lii la ci Abu Hanifa wax lii la ci Shafii wax lii la ci Ahmad ibn Hanbal wax lii la Awzaa'i wax lii la Ibn Jarir Tabari limal ko ay borom xam-xam kenn ku ne nga ne ko lii la wax ba noppi génn dem kooku bàyyi nga ko ci huwa joo kenn xamut lu ko ciy génn kon kooku jaxase nit ñi la gën a jege ci defar leen léeg-léeg ki koy def la mu ci jublu mooy ñu ne ah kii de moom liir na téere yu bari ndax xam na ne eh, masala bi ñii ñëpp kii lii la wax kii lii la wax kii lii la wax waaye loolu du maqsid bu am njariñ loolu amul solo loolu moo tax mi eh, fit ci wax ak nit ñi toujours li ngay jot li rawatina boo dee wax mbooloo di la di la déglu mu wóor la ne li ngay wax <coughs> ñi koy déglu ña ngi koy jël te mbooloo lañ kon fexeel ba li ngay wax na tegu ci loo xam ne lu leer naññ loo xam ne da defar sa jubluwaay ba àggal ba teg ko ne masala bi dëgg la danaa leen ko waxee nii sax waaye nag fa ma jëm mooy fii mooy su ma àggalee lan laa bëgg ñu yóbbaale ko mooy lii waaye léegi-léegi nit ki day wax ba àggal boo ko laajoon lan nga jàpp ne nit ñi yóbbaale nañ ko du la wax ne len la lu dul rek jaar naa ci masala bi nit ñi dégg nañ ma may wax bi ñu ci génnee allahu aalam kenn ku nekk loo yóbbaale déedéet njàngaleem diine du demee noonu njàngaleem diine jàngalekat bi dafay teg objectifu li muy jàngale nga xam ne bu ci noppee wóor na ko ne bu leeralee li muy leeral ba noppi kay dem dana yóbbaale nangam moo xam ne bu ko yóbbaalee dana ko nangu wala du ko nangu waaye dana xam ne man sama position ci masala bi mooy nangam bu demee mën na koo jëfe mën naa doon mu dëppoog dëgg mu am ca tuyaaba ka ko doon wax moom itam am ca tuyaaba yàlla na borom bi tabaraka wa taala jàppale loolu ki nga xam ne daa luye fi béréb boo xam ne liy gàttal masala bi mooy mënta julli ji fajar ci sababu buntu kër bi ni mu bindoo su fekkee mën naa waxaal waxtaan day ba ba mu soppiku ba mu man di dem julli ji waxtaan ak kër gi ba ko ba mu soppi loolu ba man di julli ji di dellusiwaat loola mooy li jaadu ndax fi luye am na fa xaq te am na xaq fi jaamu ji boromam di dellusiwaat <coughs> su fekkee nag loola tëna jàpp naa ne continuer nekk foofa loolu doonut ngànt lu doy pour nit ki bañ a julli ji fajar nag ba faaw kon na jéem a xool beneen solution ginnaaw dafa luye kër yi bari nañ euh, su fa nekkee it muy gëstu nag di seet feneen foo xam ne su fa demee euh, dana mën di julli ji mu jéem a dem foofa ki nga xam ne day jaay carte yoo xam ne day am ay code carte yooyu des na ci def lu baax des na ci def lu baaxut kooku la chaque nag day dugg ci biir li ñu tudde ay subahaat li jaadu su fekkee ne moom liggéey boobu mën na ca taxakkum maanaam nga xam ne ab liggéeyam la boo xam ne moo ko moom yow yaa ubbi sa imprimerie yor sa yëf di liggéey say carte képp ku ñëw ne la damay defar lu carte boo xam ne la ko tax a jóg mooy lu bon booba carte bul ko defar defaral kay defaloo moo yow mu yor machine photocopie bi yéen a yem ki ñëw ne day photocopier loo xam ne wóor na ne lii ay xar nga fuufa su boobaa nee ko lu mel noonu nun dun ko photocopie soo ko mënee laabiré sax moom bàyyi loola nga def ko kon loolu mooy jaadu su fekkee nag ab liggéey la boo xam ne dañ ko faa jël <coughs> jaadu na moom en tant que jullit ci li muy liggéeyee ka muy signeel contrat di liggéey moom mu xam lu muy nangu moom ak lu mu dul nangu ndax dinaa ab xam-xamam la yor akub man-manam jaadu na balaa jël engagement ci benn liggéey bu nekk di signé contrat mu wax moom itam ay conditions ndax borom liggéey bi day waxi condition lu bari nag nit ñi sonn guñ sonn ci wër fuñ liggéeyee mu të bañ xëy gis ko benn bis mooy tax dañuy fàtte sax conditions yi yoroon suñ signé ba noppi ba mu jàll daal ñu door a gis ne ah lii kat moom ndekk am na yu nekk ci biir yoo xam ne man bàyyiwuma ko woon xel waaye fekk nag yooyu lu coono bi métti métti yu ma ta bàyyi xel la ndax diine la ki nga signal contrat mu ne la waxtu julli bu jotee bul julli ji wala bisub ajjuma kenn du dem julli ji ajjuma boobu contrat bul ko signé nee ko sama condition mooy fu waxtu julli ji ajjuma damay dem jotee damay dem julli ji fu bu la nee da ngaa bëgg a def lu xaraam da ngay jaayaale cigarette nangam nee ko jaayuma cigarette loolu du ma ko mën lépp lu dagan daal mën naa la koo jaayal waaye nag ba dee cigarette nag ak sàngara yi ko nuru kooku du ma ko laal fenn soo mën a am keneen ku ñëw toog di la ko jaayal nag loolu baax mu leer nañ sooy dugg dugg sooy ñàkk a nga ñàkk a dugg te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne man taraka shay'an lillahi awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla dana la wuutal lu ko gën loolu moom wóor na ma ne ku ko essayer da te ñu bari nañ ko gis ko boroom soxna si nga xam ne dafa bëgg a ñetteel nee na te fekk lim digoon soxnaam mooy fasu ko yéene dafa am lu ñuy tudde shurut fi nikah ay charte ci sëy charte ci sëy mooy bépp charte boo xam ne jamono yi ñuy fas sëy bi wax nañ ko ba ñii témoin ñii seede sëy bi ñu seede waale ko su fekkoon ne waa ji jamono yi ñuy fas sëy bi waxoon na imaam ak waa jàkka ji ne ah nun kat waxtaanoon nan maag soxna si ba su ma ko xasee takk ci moom laay yem moo xam benn la moo xam ñaar la ñooñu waxaale loolu moo tax jàkka yi ci boppam loolu war nañ ko dugalaale ci seen i xalaat di ci waxaale ba ñu wax ndax engagement yu mel noonu ko yéene jël wala duñ ko jël wala su dul loolu dañuy bàyyi noonu rek wéy li nga xam ne mooy àtteb sharia suñ ne moom la sharia daganal rek moo dagan foofa su fa jógee nag di wax soxnaam waxam yu neex ak yëf yëfaan yu mel noonu ba jël engagement boo xam ne bu mu mënut la dem ba ci biir mu dellu gannaaw su boobaa àtteb ku wax lu dul dëgg rek lañ koy jox su fekkee da ko waatoon àtteb ku giñ ba noppi dellu ci gannaaw lay doon su boobaa kafaaratul yamin moo koy war mooy day war ñetti fan wala mu euh, leel fukki miskin su ko defee euh, yu mel noonu ay mbir la yoo xam ne yu bari la nag ci biir société bi raw na ci ndaw ñi lu bare bare bare bu ñuy door a takk soxna ci commencement bi jàpp nañ ne moom xalaat moom lu jëm ci googu fànn moom boobu bunt mën nañ koo tëj mu jeex waaye fekk mbir ma nag du noonu maanaam boo duggee ba ca biir man ngaa gis ay sabab yu tax ne takkaat keneen mënta ñàkk léeg-léeg loolu moo tax suñu borom tabaraka wa taala daganal maanaam néewut dafa war ne faaw nga takki keneen waaye daf koo daganal ci ka ko mën daf ko daganal ci moom kon jaadu na ci nit ki buy wax lu neex ak lu mu mën a doon mu seet yeneen yi bunt yu mu koy waxee yoo xam ne du bokk ak jël engagement boo xam ne su ko jëlee du ko man mën bil munaasaba ñu ngi fàttali mbokk yi ne an ci sababu problème yu bari yi nga xam ne mi ngi am am na benn séminaire bu ñu war a def ci le six ak le sept ci weeru juillet boo xam ne ñu ngi koy defee fële ca école ba euh, mu jëm ci maharaat xal alxilaafaati zawjiya juuyoo yi am ci diggante way dencante yi fan lañuy mën a jaar ba mu wàññiku ak passé yi nga xam ne mi ngi am tey gaaw lool ci biir mbokk yi ab séminaire la buy diire ñaari fan yoo xam ne samedi ja la ak dimanche ba benn bu ci nekk bu ñu xëyee neuf heures ba une heure ñu wàcc bu ci ëllëg sa neuf heures ba une heure ñu wàcc ku ca bëgg a bindu mën ngaa jokkoo euh, Omar Diallo wala Mbacke Ñang koo fee ca école ba am na nag ay participation yoo xam ne kuy bindu ku nekk am na looy joxe bu dee góor am na lu muy joxe bu dee jigéen am na lu muy joxe ki nga xam ne dafa gis mbokkam mi doon def li ñu tudde nisfu saax maanaam mbubbam dafa nekkoon ci digg ab yeelam ba mu yàgg mu wàcc waaye muurul ab dogo dojorom man dama jàpp ne loolu ba mu ko gisee waru ci woon a wax maanaam moom ci jëmmi boppam liñ ko digal mooy munkar ci boppam su ko gisee mu soppi ko waaye mu xam ne gisagul munkar maanaam gisul lu bon la ñuy soppi mooy lu bon te noonu kooku doon waxe ci biir question bi dama cee comprendre li ñuy tudde tasaddud daf cee xaw am ndax su fekkee moom dafa jàpp ne dafa jàpp ne wàcce mbubb ba mu jub ab dojor te bañ koo muur su jàppee ne loolu daganut kon kooku ak ak teengal la ci wàllu diine maanaam loolu benn boroom xam-xam bu wax loolu amul su bëggee wax ne saxaaba yépp dañoo àndandoo woon di def ni su saaxitam loolu amu ci dalil te même su fekkoon ne noona la demee sax noona la demee tam sax ci ay xadis ne lépp loo xam ne dafa muur dojur loola lañ tere kon du tee la daganoon moom day continuer dagan mën ngaa wax kay ne lële moo gën waaye nag li dagan moom ñëw na ba fii kii def lu dagan nag kooku deful loo xam ne munkar la su fekkoon ne munkar la def kon kooku war na ko jéem a soppi waaye nag lim def du munkar te bu fekkee ne ab xaritam loola mbokkam moo xam ne mën naa wax ak moom mën naa laajanteeg moom moo tax mu laaj ko loolu mën naa nekk parce que nit ki dana dem ba li ñuy tudde ay xawaajis amatul seen diggante nga xam ne loo gis ci moom lu ne mën nga ko caa posé question loolu léeg-léeg mu am diggante nit ak nit soo ko ko waxee dëgg la mën ngaa am tiitaange ci ne kii gisoon naa mu nekk ci benn niveau damaa ragal ne dafa wàcc xaaral ma laaj ko ko bi nga ko laajee mu firil la ko wax la loo xam ne li nga cay déggee mooy loolu du ak wàcc kon booba da ngaa a sant yàlla ne ko alhamdulilah damaa defoon ne kay ak dellu gannaaw la waaye ginnaaw yaa nga fa nga nekkoon dafa am sabab bu tax nga di ko def kon loola dara nekku ci kon daal ala xaal ci lu dagan la nekk lu baax la nekk al maaruf kooku la yuxayar ginnaaw ci maaruf la nekk saa bu demee ba mën a yokk yokk am naa nag pour wax ne nag lenn lu nekk la gën rek ci lépp nga war a nekk loolu li ñuy tuddee ak misaaliya la mooy loo xam ne nit ki da koy wax rek nii waaye tatbiq ko nag yombut lenn lu nekk nga jël la gën loolu moom jàpp naa ne su fekkoon ne ñun ñëpp mën nan ko kon booba tuut ñu àgg ci martaba saxaaba ya wala ñoo xam ne sax booba tuut ndax saxaaba yëpp nekkuñu woon ci benn martaba saxaaba yi am na ci ñoo xam ne bañ leen di mbugal dañoo tàggoog seen sago ba wax yonent bi lu dul noonu am ci ñoo xam ne bañ leen di mbugal saa bu seen xel demee bu del siwaatee li ñuy njëkk wax mooy la leen gën a naqari mi misaalum Bilaal ak misaalum Ammaar ibn Yaasir kon yi ci seen bopp nekkuñu woon ci benn martaba du ci imaan du ci mën a muñ du ci wàllu iltisaam kenn ku ci nekk am na niveau boo nekk kenn ku ci ne am na beneen boo nekk ak rawante gu mag a mag a mag moo nekkoon ci seen diggante loolu moo tax ahlu sunna wal jamaa mu bokk ci seen pas-pas ne al imaanu yatafaadal gëm ci boppam day day ëpplente noonu ëpp ëpplente moom ngëm yàlla ci boppam nag ak yaqiin yi koy feeñal ci bitti it noonu la ëpp ëpplente kon ki nga xam ne mënoo yéegal ngëmam ba mu toll ne ngëmu diw sàngam mënoo góorgóorlu ba fexe ba yiy feeñ ci bitti mu tolloog yay feeñ moom itam ci bitteem ànd ak ne li jaadu mooy ku gis munkar moom da ngaa war a laaye biir ba mu soppiku waaye ñu xam ne mbokk moomu lim gis du munkar wallahu taala aalam